Imaginez, imaginez. Ok, ok. Imaginez, bon, imaginez. Le bon, le bon, le vrai, le vrai, le vrai. Ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération, ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération. Imaginez, imaginez. Ok, ok. Comme vous pouvez le constater, amis téléspectateurs, on reste fort, on reste debout, malgré les incidents que vous avez eu à noter durant l'émission passée. Bon, duñu ci dellu si waat mais émission bi je vous rassure dès le début du am je vous assure car euh, amis téléspectateurs ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm équipe bi nga xam ne ñoo fi jógee léegi on les appelle la team intense c'est Ya Awa et sa bande Boups et consorts Bakhaw mention spéciale à eux merci d'être toujours là pour nous divertir les samedis en deuxième partie de soirée nous allons parler des choses qui concernent le hip-hop sénégalais souffre le hip-hop sénégalais se plie même des fois rancunier parce que à chaque fois qu'on écrit qu'on dépose pour avoir des sponsors ils ne répondent pas très souvent favorablement wala ñi ci nangoo ñëw dañuy bàyyi ba dernière minute ñu jox la benn camion bu ñu brandé jox la ay boissons yu bari bon c'est pas toi rassure-toi <laughs> benn boisson bu zone la ba pare ne la yow da ngay fay li ngay jënd ci produit pour ñu door la abal ay chaise yoo xam ne seen couleur la on souffre sans le dire beaucoup de gens dans le hip-hop gravitent autour du hip-hop. Il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour du hip-hop. Rappeurs, managers, animateurs, graffeurs, DJ. Le hip-hop est large et vaste. zone de confort la pour yenn jeunes yi nga xam ne état bi joxu leen liggéey ñoom tamit ñu nekk ay entrepreneur waaye ci dëkk bi lañ dëkk di consommer ay produit yu nekk ci dëkk bi te waa dëkk bi mënuñu fexe ba génne ci li ñuy consommer as lëf jox leen ko loolu moo waral tey ñu war a waxtaan sur ce plateau mesdames et messieurs nous recevons un ndaanaan exceptionnel qui a fait plus de vingt ans ou même trente ans dans le hip-hop il répond sous le nom de El Chedo système euh, ennemi number one M A A O mesdames messieurs je vous demande d'applaudir très très fort Matador respect admiration grand et à côté de Matador quelqu'un qui quand il dépasse quelque part où on fait du hip-hop il se dit waouh c'est good mais son point fort lui c'est de voir comment développer de vente saa yu xëyee day xool naka lay def ba bu tegee euh, produit am fii naka lay jaree est-ce que fii couleur produit am dina gën a génn lui c'est El Hadji Mamadou Ndiaye un marketing manager exceptionnel que je vous demande d'applaudir très très fort quand vous entendrez le nom de la marque qu'il défend vous saurez derrière cette personne que cette personne la personne qui est derrière cette marque doit être balèze et de l'autre côté Guiss MC trois fois finaliste Flow Up j'ai envie de lui dire arrête tu peux pas <laughs> mais c'est lui qui va venir sur scène aujourd'hui nous faire plaisir et s'il a envie de donner un mot il le fera je vous demande de l'applaudir très très fort Guiss MC l'autre à côté de Guiss MC on se pose la question rappeur la DJ la régisseur la graffeur la qu'est-ce qu'il est ce gars mais il a du talent on oh, ça c'est indéniable il répond sous le nom de Abou Bekr mesdames et messieurs que je vous demande d'applaudir très très fort waaw kay léegi nag waxtaan bi yëpp li koy jeexal te di ko mandargal mooy ma nuyonteeg ñi nga xam ne ñoom si plateau bi ginnaaw bu ma leen nuyoo ba waxtaan bi door a tàmbali et il y a vraiment des gens qui regardent cette émission avec intérêt chaque samedi te koy defee moom mooy on a des gens qui vont débattre d'une question qui nous intéresse tous ñu toog si télé di ko seetaan mais à un moment donné waxtaan bi dafay xaw a saturé gars yi nous permet de joindre l'utile et l'agréable comme on a l'habitude ma génération fay Pape Sidi et di nuyu. El Hadj euh, di nuyu ñii di setan 2STV <coughs> yëpp guddi na mais di leen nuyu ci patience bi di toog di xaar émission di nuyu Sénégal yëpp. tey la samedi. tey la am problème gars yi dañu toog cons ba émission bi jeex. waaw waaw j'espère <laughs> boo demee gars yi sax euh, bi classico bi jeexee génn nañ fi doxaani woon en attendant <laughs> mais finalement dañ ñoom mujjee dóora. Ah. <laughs> comme d'habitude. maa ngi lay nuyu moom tamit ma yëgle ko léegi ci annonce bi muy ku xarañ nekk ci ginnaaw benn marque boo xamante ne ni Sénégal yëpp mës nañ koo ñam. te loolu bu marque boobu yegsee si euh, gémmiñu doomu aadama yi seen nopp wala ci seen bët c'est grâce à ce monsieur il a été derrière il a fait un travail remarquable il a été sollicité à une reprise par des rappeurs pour pouvoir les venir en aide en venant en tant que sponsor. Il a dit oui ou non. On le saura dans le débat. Et là, je nous le dire. Parce que sinon, on n'aura pas ouais. Moïse et Rani. maa ngi lay nuyu Pape Sidi Fall. maa ngi lay maa ngi lay bëggee aussi vraiment liggéey bi ngay def. vraiment jeune nga et puis bon je pense que yaa ngi bay sa waar quoi. Mhm. maa ngi nuyu Matador vraiment icône ci milieu hip hop. vraiment kontaan lool di bokk ak yow plateau di nuyu ñu fi teew ñëpp vraiment ku ci nekk maa ngi lay jox sa cër ak sa wàccuwaay di nuyu ñuy seetaan vraiment di nuyu waa Kër Massar voilà jugee <laughs> def un petit coucou à ma famille là mhm. CM Kër Massar. waaw. donc euh, di rafetlu vraiment jotaay bi et puis vraiment maa ngi fii ñu fas yéene partager voilà l'expérience ñu fas yéene waxtaan quoi ñun duñu ko nëbbante le hip hop graine du monde mais on a du mal en contrepartie à avoir un sponsor Matador yow mi yàgg si hip hop am na ay marques cigarettes yu fi nekkoon mm. am na ay marques yoo xam ne ils étaient là le hip hop bougeait beaucoup ils se sont retirés pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas retour sur investissement loolu moo leen delloo ginnaaw mm. pourquoi est-ce que mën nga ñu retracer un peu l'histoire du sponsoring et du hip-hop sénégalais waaw jaajëf Pape question bu am solo parce que si je me rappelle bien euh, comme ni ngay waxee flow up ci début hip-hop bi dañu amoon benn compétition bu tuddoon nuit du rap mhm. euh, CCF à l'époque mhm. doon ko organisé et je me rappelle biñ ko remporté en tant que groupe BMG 44 benn euh, sponsor cigarette moo jëloon vainqueur bi en charge pour jox ko mu def clip vidéo mhm. à l'époque peut-être vidéo ba amul woon ñaar wala ñett ci hip hop bi mhm. ñoo ko def ñuy suivre hip hop bi benn instant am na est-ce que mën naa wax tur euh, yenn sponsors yi nga xam ni jot nañ leen allons-y on se le benn instant gisoon nañ ne bëri na ay sponsors yu bon produit yu bees yi ci ëpp mhm. bu ñu ñëwee dañuy tafu si hip hop bi mën a am. aura aura pour ñu seen produit mën a dem mais buñ demee ba xaw a affaire bi xaw a jël benn ampleur rek ñu gis ne dañuy dévier ci yeneen activité bàyyi hip hop bi loolu constaté nañ ko ci secteur yu bëri. Mm-hmm. donc même bu dul si ay produits yoo xam ne ay sponsor lañ ñu gis ni amoon na ay temps vraiment sponsors yi même bu bëriwul woon daan nañ ko gis. Mm-hmm. mais li ñu constaté te instant boobu euh, on n'était pas du tout vraiment organisé ah. parce que ku nekk yaa ngi woon sa ruq di liggéey ci pop bi amoon na quelques structures ay studio comme Sankara Bois Sacré yu xawoon na nekk en place mais li ci ëppoon ci groupe euh, rab yi laa mën a wax surtout organisé wu ñu woon comme tey ni ñu organisé wu. Mm-hmm. comme ni ñu organisé wu depuis il y a dix ans ou treize ans derrière. ñu gis ni benn instant soxla nañ ay sponsor man ci sama sponsor euh, sama njàngat je me suis dit que bu yi ñëwul si ñun c'est parce que am na quelque part benn faille bu nekk si si ñun mm-hmm. donc peut-être on nous disait que c'était trop violent Mhm. parce que nit ñi ci verbe bi rek lañ doon basé wu ni c'est violent. mais musuñu musuñu ci gis des ngeen doon boole ci verbe bi da ngeen ci doon boole yenn yi. Mm, non des fois mu amoon raag nag. non mais mais raag day am ci. match nawetaan day am ci bëri bi ba léegi. mais match nawetaan amul amul sponsor mais hmm? match nawetaan amul sponsor. si ah, bëri bi ah. gars yi rocceeku nañ. waaw mais bu rocceeku nañ mais ñoom li ñu jot am ci sponsoring je pense que hip hop bi amu ko quoi si diis années yi ñu ñu weesu quoi. dix ans derrière ba léegi nii gisuñu ko donc on s'est di toujours ñu dañ doon taxé violence dafa am ci hip-hop violence boobu man gisuma ko mhm. peut-être nag des fois mu am ay ay euh, du ñàkk ah bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk des fois mu am ay jàppante yu ndaw mais violence boobu nit ñi di wax dëggantaan gis nañ ko ci yeneen secteur fu yoo xam ne ñoo ëpp violence te pourtant gars yi dañ leen soutenir. kon yow donc on s'est dit du kon du violence. Euh, excuse-moi dama da dans le temps. Euh, il y dix ans ou ans en arrière. li taxoon sponsor yi retiré wu. moom mooy dañu jàpp ne violence moom moo am. bon entre guillemets. loolu lañ leen jox xaw a dégager comme réponse que ni voilà c'est violent wala vous n'êtes pas organisé. vous n'êtes pas organisé. voilà donc après après. on s'est dit quoi peut-être c'est vrai on s'est organisé depuis il a depuis dix ans derrière ay structure ñoo taxaw mm-hmm. ay ay entreprise la hip-hopeurs yi taxawal mm-hmm. ak lépp li ko ko wër mm-hmm. et ce que je ne peux pas comprendre si ne aujourd'hui loolu moom mënatu a nekk prétexte parce que les mêmes dossiers yi ñuy déposé si ministères yi di ko déposer ci entreprise yi. Mhm. pour am sponsoring di ko déposé ci yenn di ko déposer par exemple. ci yenn fondation yi nekk à l'extérieur wala yenn institution yi nga xam ni dañuy supporter un peu la musique muy jàll ñuy am ñu ñuy accompagner. depuis ça, ça c'est de nos jours l'Europe ça c'est de nos jours euh, ça date de. presque ans di ans oui. parce que depuis la fondation euh, d'Africulture vous avez des euh, subventions peut-être trois ans après on a commencé à travailler ak ay institutions depuis le début sax mën naa wax. ay institutions yoo xam ne yu dëgër la. dossier moo fay jàll. mais mais attends et c'est même dossier là qu'on dépose là institutions parce que mhm. si l'ambassade de France vient en aide mhm. aux Sénégalais alors qu'il y a plus de problèmes en France qu'au Sénégal il y mhm. population en France Sénégal donc en quelque sorte da tu te poses non. pas la question lan la ñuy wut ba ñuy jox xaalis. ñoom non non je, je dis pas euh, la France seulement c'est pas. par on exemple travaille, on travaille France, avec Allemagne, les Hollandais on ouais. travaille avec le plus beaucoup plus même les les, les Allemands. Mm -hmm. avec on travaille avec le monde te foofu du kanamu Matador du parce que non parce que dossier ngay déposé. Mm -hmm. c'est comme par exemple quand on parle d'Union européenne. Euh, euh Euh, ni culture di déposé wala yeneen secteurs yi agriculture yeneen ni ñuy déposé on dépose des dossiers. Mm-hmm. et ñiy déposé euh, ci projet yi appel yooyu xam nañu comment c'est compliqué. et c'est difficile c'est deux mondes parallèles en fait. si et si. je te le concède parvient à décrocher. Mm-hmm. Hmm, mais dama ay financement xam nga yow li ngay wax ni xam nga lan li ngay wax ni lan mooy mm-hmm. importance bi. on aura besoin de ça. dans l'alternative que vous avez trouvée pour pour continuer à vivre. activités. pour mener vos activités. vous avez trouvé d'autres alternatives. xam di jëlee waat xaalis. mais instant yi dama bëgg ñu focus. just ci lan moo indi woon ci dans le temps ak lan moo leen delluwaat. vous avez évoqué l'aspect de la violence. et le manque d'organisation beneen bi manque d'organisation. aujourd'hui ni violence. am na si rab am na ni manque d'organisation am na mhm. donc li am mooy c'est des gens yoo xam ne peut-être. nag euh, c'est pas du affaire boo xam ne par force la. Uh-huh. da nga koy sentir nga def ko. Uh-huh. peut-être le secteur. Uh-huh. dafa am lu nekk ci biir loo xam ni peut-être euh, ñoom dañu jàpp ni euh, loolu kese la. muy musique bi ñuy dégg quand c'est engagé ou bien euh, les mots qu'on utilise. peut-être souvent dañu ne du collègue seen ay marques. Mm -hmm. et vraiment moom je j'ai vu <coughs> mu ci dernièrement. match Mbalaxmaan rappeur ils ont eu accompagné. Mm -hmm. aussi, peut-être. Euh, euh bon, peut <laughs> mais en tout cas, ils étaient là. Uh-huh. mais la majeure partie. Mhm. ñi tax may gën a wax. mooy euh, dañuy def euh, pays yu bëri dañuy def la sous-région waxuma sax Europe. Mhm. da ngay dem Mauritanie nga dem Bénin nga dem si pays yooyu Togo pays yooyu yëpp nga dem fa si ay festival par exemple mais da ngay gis ni partenaire bi gën a ëpp doole. ay société ay société de communication yi nekk foofu la mhm. ñooy accompagner loolu sa expérience internationale dina ci ñëw Mbaye li nga li nga nekk eh, excusez-moi si je dis Mbaye ah waaw non tu peux dire Omar moom moom ma yàqal loo wax baax na ñëpp dañuy comprendre <laughs> euh, Matador da nga may baal rek xam nga dama ko bëgg a def step by step ok xam naa ni tu as en plein dans la tête te da nga ko bëgg a partager ak ñun parce mm. que vous aussi vous faites partie des gens qui organisent mm. et vous avez du mal à joindre les deux bouts Et c'est pas facile. Ouais. On vous le comprend, on vous comprend, on vous le conseille. El Hadj yow yaa fi teewal mboolem ñi jàng marketing communication ak ñi yor société ñu leen di solliciter pour sponsoring dama bëggoon ci ndorteelu waxtaan man ak yow ci njëlbeen ji nga wax ñu lan lay définir ci yéen marketing boo ko doon tënk ci ñiy seetaan te xamuñu lan mooy motiver marque ba mu dem ci benn. làmb wala benn concert wala benn événement ñëw indi markam coloré événement boobu c'est quoi la signification de marketing pour vous El alors merci merci ci question bi je pense que question bi nga posé am na solo ça permettra de, de baliser le terrain xam nga marketing euh, stratégie la mm-hmm. tey jii boo xoolee euh, société yi dafa ay ñoo xam dañuy jóg investir seen xaalis. Mhm. créer entreprise. léegi boo créer entreprise dangay ngay am produit boo xam ne si moom ngay jaay ci marché bi léegi produit boobu boo ko bëggee jaay. Mhm. il faut d'abord nga xamle ko. donc sauté naa yu bari. yaa mhm. mooy conception produit bi xam nga. déjà vous avez le produit entre les mains. on a le produit entre bi foog nga xamle ko. il faut ñu xam ko. de la visibilité. De la visibilité. Hein? C'est-à-dire faire connaître le produit d'abord. Mm Il faut faire aimer le produit. Moi, les, les techniques de communication qu'on utilise, avec faire les agendas, Je va y revenir peut-être. Faire aimer le produit, c'est-à-dire souvent, mais son produit, de faire un emballage, il pareil. Mhm. Il faut qu'on m'accompagne avec l'eau, c'est une qui beaucoup guisé à travers le canal de communication utilisé. Dina ko, dina ko, non seulement dina ko xam, mais dina ko neex aussi. Mhm. Parce que façon bi mu koy présenter la. si design bi wala si event bi nga koy invité. exact c'est la même chose may communiquer ak produit bi. Mm-hmm. c'est-à-dire je peux utiliser l'image de Matador par exemple pour que les gens apprécient mon produit. Mm-hmm. j'ai donné un exemple. j'utilise de la musique wala j'utilise du rap wala j'utilise euh, je sais pas ay ay bongo. l'essentiel mm-hmm. mooy l'essentiel mooy par rapport ak sama cible man. ñi ma koy décerner ñoom dinañ ko bëgg. troisième aspect mooy faire de d'ailleurs c'est le plus important faire donc façon bi moo koy présenter. Mhm. ak di ko joxe dama objectif bi ma bëgg mooy ni ñu jënd ko le changement de comportement. Mhm. léegi marketing foofu lay foofu lay ñëw pour trouver des stratégies pour pouvoir pénétrer en marché parce que produit boo ko distribuer ba pare ba mu nekk ci point de vente nga xam ne produit bu disponible la. Mhm. foofu la marketing di jóg pour teg ay ay pexe parce que c' est cyclique ah. il faut mu obligé dagg ko euh, présenter yow fi la intéressé. parce que le marketing c' est cyclique. donc mhm. c' est c' est est ça vient du marché et ça retourne vers le marché. donc produit bi ma lay jox tey nga xool ko teste ko jox ma ci feedback. te delluwaat. feedback boobu da delluwaat ba ci conception bi bu fekkee dafa am lu ñu ci changé ñu changé ko bu fekkee am lu ñu ci yokk ñu yokk ko mu ñëwaat encore ci marché bi donc c'est cyclique. Mm-hmm. léegi euh, technique boobu moo koy may utiliser pour nit ñi xam ko pour nit ñi bëgg ko. Mm-hmm. par exemple sur le marché du Sénégal nous sommes combien million millions de. de de de personnes. mais nous ne résidons pas tous au Sénégal je pense. exactement. Mmh. donc mënumaa jël sama produit man dem ci Matador wax ko ko dem ci quinze millions de personnes yëpp c'est pas possible. Mm-hmm. mënuma donc su li may def mooy damay utiliser ay canal dafa am ñaari canal canal média am canal or média mooy direct bi. canal mhm. média bi mooy. main to main. exactement mooy direct bi. waaw c'est le marketing direct. Mhm. mooy maanaam damay dem jaar ci télé yi def sama defar sama conception spot jaale ci télé bi ñu publi defar ma publicité. Mhm. boobaa ku ci nekk fa nga toog di ko gis. pas ñëpp mais en tout cas une bonne partie de la cible. beneen aspect bi mooy ma def du marketing direct mooy maanaam ma dem ci nit ñi directement. Mhm. proposer leen ko su may dem ci nit ñi mën naa effectivement gis Matador moom benn événement benn benn local. Mhm. ma xam ni événement Matador bi nii ça dafay day drainer du monde. Mhm. parce que ñun suñu jargon xamuñu hip hop reggae euh, mbalax xamuñu xam cible. cible c'est qui la cible. la cible. mooy man maa ngi jaay cigarette. Mhm. mais duma dem ci ay mbootaayu femme naan damay leen di sponsoriser. déedéet déedéet du ma dem ci ay ay en tout cas ay age wala daayira wala ay daayira. munul nekk munul nekk donc je vais chez les jeunes tout simplement. bu ma xamee nag Matador lui sa force mooy il mobilise les jeunes Matador devient quelque chose d'intéressant par rapport à par rapport produit n'est-ce pas donc canal la man pour man ma dem directement ci ci euh, ci euh, ci cible bu ma soxla. Hmm, hmm. pour répondre à ta question. noonu la fay demee en fait cest dire ñoom gis nga dañ ko jëlee ci point c'est-à-dire pexe mi yëpp mooy fexe nan la ñuy def ba am ñeent fukk wala 200 wala 100 francs wala juróomi dërëm yi ngay dem ci boutique bi mécanisme boobu nit ki taxawul ci boutique bi salaamaaleykum jaam benn cigarette waaye c'est-à-dire tu ne t'en rends pas compte en tant que consommateur. mais l'ensemble des gens qui font la même chose en même temps font que l'industrie du tabac ça fait énormément d'argent. c'est pourquoi il y a un problème Pape. il y a un problème où, où que, est le problème. parce que parce que produit yooyu mënuñu fi nekk. Uh-huh. Euh, quoi qu'on dise hein, au Sénégal bu ñu la waxee rien que les groupes de rap te yokk na uh-huh. on parlait de plus de 3000 groupes de rap. On est à 5000, je euh, pense. Il y a les graffeurs, il y a les DJ, il y a les euh, rollers. Mm -hmm. on parle de, de euh, culture, euh, urbaine. Euh, culture urbaine. Est-ce que nous avons 500 nga li mu li ci jeune si Sénégal li ñu ciy consommé et li ñuy liggéey bi ñu ci def ñun si sunu wàll tey waruñu woon a man je ne vois pour pourquoi ñu war a wuti ji sax sponsor ñoom ñoo war a wuti ci su suñu événement. mais on est nombreux. et ay événement yoo xam ni eh, gis nañ ko quoi du lu ñuy créer mais parce que yu si bëri des fois ça passe en direct sur yenn télé yi. lu mm-hmm. mel ne ay yenn festival yi c' est en direct ñu koy gis. Mm-hmm. et vraiment on ne peut pas comprendre pourquoi mënuñu bu dee cible bi mooy public bi ak ñi ñuy suivre. la majeure parti des gens xam nañ ne bu dee si c'est chez les jeunes la lu war a intéresser les jeunes la amul luy regrouper autant de jeunes que culture urbaine. Mm-hmm. mais c'est relatif. Euh, je mun ngeen ah, a débat man mun ngeen a débat vous pouvez débattre. sport moo fi nekk peut-être ak musique la ñuy wax surtout quoi. peut-être li nga xam ni bëri na lu muy kii mais culture urbaine par exemple. kii par exemple boisson ay mariage ay ay ay affaires yooyu mais mais jeunes yi dañuy <laughs> bien sûr. <laughs> donc donc man man cible bi je ne gisuma cible bokk. parce que benn instant on s'est posé des questions on s'est dit pourquoi pas bon benn instant on s'est dit man bokk personnellement je me suis au lieu d'aller vers les sponsors essayons de travailler de développer quelque chose si suñu biir secteur loo xam ni peut-être dina leen intéresser. mais mm, mais ça fait dix ma mais Matador il faut pas dire man c'est ma cible mais quand tu écris tes textes. mais tu as une cible toi. je pense non non dama au lieu de courir derrière sponsor on a fait pendant près euh, beaucoup euh, d'années eh, mais yéen da ngeen di jaay affaire xam nga pendant beaucoup d'années ñëwuñu on si di nañ xoolaat suñu bopp peut-être ah, y a un problème on di teg ay événements yoo xam ni sérieusement Pape da ngay fekkee yenn événement yi événement boo xam ni sa démarre peut-être mën na démarrer vingt et une heures jusqu'à quatre heures du matin les gens sont là et le public est là mhm. les jeunes ñooy consommer produit bi et on n'a pas euh, amuñu benn sponsor si ginnaaw et ce qui est dommage mooy ni si c'est un artiste c'est des artistes sénégalais on les voit pas mmh. mais si c'est des artistes étrangers yoo xam ne dañu ñëw Sénégal et souvent day fiasco yenn concert yooyu mhm. on voit que ni dañ ci participer Maam Góor Jazaaka moo ko ëppoon dañ ci participer c'est vrai non à deux cent pour cent mhm. c'est euh, vraiment je sais pas vous mais problème bi ñuy régler nii problème bi ñuy régler nii ah ah. gën na xóot gën na xóot sax suñu seen seen seen yéen ak seen i problème parce que yéen a ngi jàpp li ngeen mën ak yéen a ngi jàpp li ngeen mën ak fi ngeen toll mais dañu gis ni mhm. ñi nga xam ni ñoo waroon ci ñoom la waroon gën a jekk mhm. ñu am euh, euh, ñuy def ay chiffre d'affaires yoo xam ni vraiment si année bi ay milliards la ah. ñu koy def ci jeunes yi parce que opérateurs je, de téléphonie je, tu jeunes yi par exemple tout le temps ils sont connectés ñi ngi si téléphone wax dëgg yàlla mag yi dinañ connecté wu mais ba benn instant mais jeunes yi ñooy connecté wu peut-être 24 heures sur 24 et ces et ces gens là di def bénéfice yooyu quand c'est les Sénégalais c'est les Sénégalais qui organisent on les voit pas mhm. et si c'est des étrangers artistes étrangers yu jógee par exemple kaaw boobu ngay wax ñëw fii ñu def si ay millions yu bëri ñaata yoon laa xeex loolu non mais ñun dañ ko xeex. dama kaasa kaasa kaasa ba ñu mujj gi nii mooy indi arab bi ñoo may jéppi en fait. du xeex lay xeexal je pense que par rapport à la à l'argumentaire. du xeex c'est pas un dualisme. du ñii dañoo taxaw fële di bañ investir ñii taxaw fële di def c'est pas ça. c'est quoi cest dire xam nga dafa am ñetti affaire dafa am dafa am aide soutien. Mhm. cest man je suis une entreprise maa ngi liggéey je fais bénéfice bénéfices ma am benn budget boo xam ne dama ko consacré par exemple l'initiative des jeunes. Ça, c'est de l'aide, c'est un soutien. Mm -hmm. quand, je te, quand je te soutiens, je n'attends absolument rien en retour. Mhm. xaaruma ci leneen dama gis ni bon sénégalais là je suis entrepreneur sénégalais gis naa ni. Mhm. y a des jeunes yoo xam ne si vraiment am nañ ambition ñu ngi liggéey ma coppati tuuti li ma yor. accompagner leen. Mhm. def ko ngir yàlla loolu c' est le soutien. sans rien attendre sans rien attendre beneen bi mooy bàyyi ko mu daaneel turaay xëy na ñu comprendre beneen bi mooy damay tëb sponsor ko beneen bi mooy le mécénat. mécénat. forme publicité la mais c'est une publicité déguisée. Mm -hmm. cest aujourd'hui maa ngi sama entreprise maa ngi def ay ay bénéfices def chiffre d'affaires ma jënd benn ambulance may ko benn centre de santé. Mhm. mais ma bind ci. sa marque don de et cetera et cetera. Mhm. don de par exemple exactement. Mm -hmm. ça c'est pour développer un peu le, capital marque. Mhm. pour marque bi ñu mën ko associer par rapport à à une marque qui s'investit dans le social. Bien sûr. dans dans l'esprit des des des, des gens maintenant sponsoring du du du du lu ñuy xëccoo du lu ñuy xëccoo c'est un c'est c'est un besoin bu nekk benn instant xam nga Matador boo amee événement am si je ne suis pas intéressé par l'événement Matador c'est pas parce que Matador est en train de faire du bruit au niveau de la banlieue est en train de de de de, se fatiguer du loolu mooy tax moo sponsorisé ko déedéet. il il faut que il faut que aspect yu bari réunir. te xam nga xam nga boo jëlee cible la cible jeunesse. bu xoolee mhm. rap hip hop. Mhm. c'est les jeunes qui font. Mhm. effectivement les jeunes représentent. 70 pour cent 70 pour cent de la population. maintenant quand on parle de jeunes on met entre guillemets pouvoir d'achat. boo xoolee entreprise yi nga xamante ni si dañuy wàcc ñëw ci jeunes yi. di investir foofu en termes de communication ñooñu dañuy inscrire dans le temps. Hmm. c'est-à-dire ils am naa ci kenn ñenn ñu may liggéeyal. développer leur marque. dans le temps. Hmm. loolu pour pour nga mën ko def yow il faut que ça soit une marque solide. Hmm. boo xoolee Sénégal entreprise bari nañ de mais il y a énormément de marques yoo xam te ni si da ngay leen di gis tey bu subaa loolu gisaat. c'est-à-dire c'est des opportunistes ñu dem kaaw gis benn produit indi ko testé ko. kooku il va jamais mettre un budget de cinquante millions sur la marque il va pas il va pas le faire parce que pourquoi dafay essayer et puis man du ma jël marque boo xam ne ni si moomu ma ko awma ci contrat d'exclusivité pendant des dizaines d'années ma ci investir sama xaalis en termes de communication développement marque du ma ko def donc boo xoolee quatre-vingt-dix pour cent des marques que tu au Sénégal. Mhm. c'est des marques importées soit bu fournisseur bi. moom bu demee ba gis ni peut-être y a potentiel sur ce marché là fournisseur bi ñëw appuyer en termes de budget pour que ñu mën a travailler mais man du ma jël sama xaalis def ko ci parce que mun naa ci investir ci capital marché bi ñu def deux ans après ñu gis mu gis keneen koo xam ne moom ëpp doole mu retirer licence bi mu ma joxoon jox ko keneen kan mooy perte. yow du man maay perte. Mhm. donc il faut ñu jël quatre-vingt-dix pour cent wala quatre-vingt-quinze pour cent sponsoring bi sponsoring bi El Hadj sponsoring bi pour nga réunir ko yow y a la cible. La cible du hip-hop, c'est vrai que c'est jeune. Mais aujourd'hui, ça a tendance à, à changer. Mmh. Matador, il y a des gens qui l'écoutent, qui continuent à l'écouter. Man, j'ai pas, j'ai plus de 30 ans. Mmh. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, on travaille peut-être, on a l'opportunité, on a des familles, mmh. on grandit. C'est-à-dire l'éducation, que les marques devraient faire dans le hip-hop à l'époque où ils avaient plus besoin d'eux ils ne l'ont pas fait wax nga dëgg am naa benn marque bu may liggéeyal boo xam sax très certainement dañuy ñëw fu dara nekkul ñu defa xaalis bu bëri maye fa ay ndekki ay añ ay reer yu bëri boo leen laajee pourquoi vous faites ça et que vous n'attendez rien en retour ñu ne on éduque le consommateur à plus consommer notre produit bu màggee ba dem yor bureau day génn di jënd te kooku doo soxla communiquer c'est de créer des réflexes dès le koy màggaale je suis d'accord avec que propose le hip-hop sénégalais lan la ñuy proposer ñun on a quoi comme échange de marchandises eux ils attendent à ce que ñun ñu am pouvoir d'achat ñun ñu am public boo xam ne suñu génnee seen produit ñoom dinañ ko mën jënd est-ce que nous pouvons être redevables par rapport à certaines marques qui vont nous accompagner dans nos événements bien sûr parce que bu fekkee ni cible bi comme euh, euh, nu mu gën a large cible bu large la ñuy wër mhm. lu yaatu et souvent si su fekkee ni jeune la surtout même am na dañuy wax jeune mais dootu sax ay jeunes kese ñooy consommer hip hop bi. Mhm. et ce qui est intéressant ci hip hop bi mooy cible bi yow moom mën nañ jàpp ne toujours jeune la mais am y a des a des jeunes aujourd'hui mais y a des personnes responsables dans le hip hop aussi qui sont encore là. Mhm. avec des choses à proposer. moi je pense que problème bi dafa am des décalages bu ngande entre euh, euh, je ne sais pas. Ouais. les entreprises. monde showbiz. <coughs> et quand on parle de showbiz. Mhm. show bi c'est tout ce qui est artistique tout ce qu'on essaie de créer. Mhm. pour que mu ànd ak business. Mhm. et comme il a dit dañu passé période dimbal on ne demande pas de l'aide aussi. bëgguñu boobu moom wax dëgg yàlla. bi ñu bëgg mooy boo xam ni ku nekk c'est fifty fifty lay nekk. gagnant gagnant et c'est pourquoi. on a repris tout à la base depuis ñu commencé ni dañuy structuré wu et tout. Mhm. on a essayé on a tout fait pour former ces les, les gens qui gravitent et qui qui évoluent dans dans not secteur ñu nekk ay professionnels xam li ñuy liggéey mais peut-être beneen côté bi dañu jàpp ne fa ñu nekkoon il y a trente ans wala il vingt ans ci amateurisme boobu lañ nekk ba léegi. Mhm. alors que hip hop bi dépassé na lool mhm. vraiment dépassé na ko lu sori quoi. depuis Mathusalem ça n'existe pas. donc eux aussi ils se disent peut-être que hip hop bi loolu rek la may yem alors que on a énormément de choses yoo xam ni ñi ngi fi ku nekk mën na si jëriñ moromam que mu nekk partenaire bi muy sponsor bi wala keneen mën na si mën na si euh, plateforme la boo yoo xam ni dañ ko proposer yoo xam ne mën na si jaay produit am mën na si. Euh, euh, siiwal produit et en contrepartie mën na si tamit liggéey ak ay jeunes yoo xam ni dañuy développer loo xam ni vraiment ça sera euh, euh bénéfique pour tout le monde. Mm-hmm. du nekkati dimbal. Mm-hmm. parce que on a on a souvent c'est vrai hein chaque fois quand j'ai dit que ni dootuñu dem ci ginnaaw échangeur di daw c'est benn instant on a même remarqué que ni dafa mel ni dañuy yalwaan pour ñu jàppale ñu. on a l'impression alors que dafa am lu ñu leen di proposé ñoom dafa am lu ñu ciy gañee bien bu ñu ñëwee seen branding boobu ñuy def noonu. si si kaw seen bi. maa ngi lay wax maa ngi lay wax mais ah, c'est pas gratuit ils cherchent ça en ñoom xam nañ ko mais ils pensent que ni i hopeurs dañu toll dañuy da toll foo xam ni loo am jël. Mhm. parce que euh, boo boo ko jëlul amul ki amoo leneen. Mhm. mais su fekkoon ni vraiment demee na nu mu war a demee ñu am choix wu sax. vraiment par rapport ak branding bi beeg affaire yooyu dañuy am choix ci biir ci sponsor yi ngay war a liggéeyal. Mhm. du demee nii. bien sûr mais mais que est-ce seet. ba léegi par rapport ak visibilité bi ñuy def dossier de sponsor dañ leen da ngay ci biti brandé ci biir brandé ci kaw. seen commencé wu si leen di proposer lépp. affiche mais vous ne répondez jamais favorablement. Hmm. mooy a un décalage. Hmm. yaa ngi décalage c'est comme si ñun ñu ngi planète Mars ñoom ñu nekk planète planète Jupiter. yaa décalage. kan moo tooñ. non kenn tooñ. non incompréhension xam nga li tax décalage bi am na ku mu arrangé wul. xam nga ku arrangé wul kenn je que xam nga ku mu arrangé uh-huh. man damay communiquer. Uh-huh. je cherche un canal de communication. Uh-huh. su ma ko amul ci Matador damay dem ci télé bi. wallaay su ma ko mënul ci télé bi ma organiser bu sama bopp. c'est là où il y a un problème aussi. mais c'est ce que font les sponsors. il ne faut ñu taxaw organiser il faut ñu taxaw ma ñëw xam nga bàyyi ko mu daal bàyyi ko mu daal waaw yow dinañ ñëw ci organisation bi. mënuñ ci taxaw xamul xamul tax. non si foog ñu taxaw xamul tax waaw d'accord après dinañ ci ñëw xam nga décalage bi. Uh-huh. non Pape Pape Sidi je te jure que man. on a eu à organiser des trucs je souffre laa lay wax nii. <laughs> je reçois énormément de sollicitations. de demandes de sponsoring. de demandes de sponsoring. et Dieu sait que. chaque année on a un budget pour communiquer et on am na benn axe de communication bu ñu am yow xam nga ko. bien sûr n'est-ce pas c'est-à-dire Batoor am na événement. Mm-hmm. mu jàpp datam waxuma ko mu joxe avant saalam waxuma ko mu fay defar ay flyers wala commander ay flyers am waxuma ko dem ba événement bi taxaw mu leer ko ni léegi maintenant il faut que jàpp na date le coup est déjà parti mu ñëw seet si ma Pape mhm. si je ne suis pas de bonne foi. su ma neexee lu ma neex ci man ma koy am parce que il est obligé. de faire l' événement. de faire l' su ma ñëwee da koy def. su ma ñëwee da de def ça c' instant sax man su ma ñëwul il aura des problèmes. approche bi loolu approche bi non mais may ko parce que toj dil boo xam ne yàgg na. même daanaka may may xam nga. xaaral ma fambal sa daal mbay may nu rek. xam nga xam nga xam nga débat bi li tax mu am solo. yow waxal foofu noonu am na solo parce que foofu la xale yi di daw di sonn. effectivement xam nga débat bi xam nga am solo. Mhm. au-delà de ce que nous sommes en train de faire ça permettra à certains de pouvoir ñu xam bu ñuy organiser événement ci yan approche lañ koy teg. Mhm. parce que. Euh, boo amee benn budget cinquante millions Pape Sidi. Mhm. impérativement il faut nga def retransmission média parce que am na ñu nekk Koupantoum mais ils doivent voir ton produit. bien sûr donc Matador demal Koupantoum ma allier média bi ak hors média donc am na benn budget boo xam ne si moom moom mu mënu ci du ci jot donc média laa ko jaarale donc lu ci des bu ma ci couvrir Matador du ma ci couvrir keneen. Mhm. comprendre donc c'est très limité. maintenant yow euh, boo amee sa événement quatre question yi laa lay posé mooy lan ngay def bu dee hip hop bon concert lay doon wala mu doon doon ay ay festivités urbaines. Mm-hmm. donc je te demande fan nga koy defee le lieu. ça importe extrêmement parce que pourquoi parce que. si je te dis en banlieue à Guédiawaye. voilà banlieue à Guédiawaye j'interroge man ma machine par rapport à mon produit quel est le comportement de produit à Guédiawaye. est-ce que c'est un pic wala est-ce que produit bi dafa am ay difficultés foofu noonu su fekkee produit ça se porte très bien ak Guédiawaye je te dis bon merci beaucoup franchement. je ne suis pas intéressé je ne suis pas intéressé. on est mal barré su fekkee produit su fekkee da nga ni gël sa. on n'a pas accès à ces données pour voir où vous avez des problèmes de pic ou pas. exactement moo tax ma ni <laughs> problème d'approche la. gis nga bu fekkoon ni ca njëlbeen bi. Mhm. ngay jëw toog ak les ñun on n'est pas fermé. mais quatre nga waxoon nga wax ñaar nga wax problème. mooy bi wax nga dëgg merci beaucoup ci sa. <laughs> ñëwaatal man dafa maa intéressé maa ngay toog moom sës. quand. quand. kañ nga koy def la date. la date en général j'organise en décembre. et je te le dépose en février. mais si tu organises en décembre tu me di que tu as en fait de budget. non attends xam nga boo xam nga xam nga xam nga inconvénient organiser bon je je parle. pour ce qui me concerne. Mhm. je sais que y' a y' a d' autres entreprises qui ont suffisamment de. ñoom ñëpp a décembre fin de budget non da nga yéex a mooy man j'ai un budget de millions. c' est pour l' année je décide de quelques activités que j'organise le budget il est là en fonction lu ñuy gën di avancer may coppati ci budget bi maintenant décembre. su su budget bi guddee fan dëgg dëgg dëgg la yegg décembre parce que xamul tax parce que mun naa dem deux mois trois mois ma am benn que je dois régler c'est-à-dire ma am benn perception mauvaise perception sur le produit produit bi am na fen et cetera donc je suis obligé d'injecter de l'argent du ma xaar produit bi am na problème léegi nii may xaar ya a un événement qui vient de décembre non du ma ko def je mets l'argent tout de suite loolu benn benn benn facteur la décembre c'est un mois stratégique c'est le mois des comptes on ferme et c'est très délicat c'est un mois très délicat il y a beaucoup de travail nga on doit. yëguñu ko woon gars yi bàyyi ah. ñëw ay janvier mais mais je dis que décembre c'est un mois parmi les les mois de l'année dañuy communiquer dañuy communiquer ça dépend ci ci ci pro activité bi ngay proposer ak budget bi muy demandé. maintenant beneen aspect bi mooy avec qui tu fais l'événement ça c'est extrêmement important. c'est extrêmement important avec qui tu mets ton concert à Pikine tu n'as aucun accompagnement média amuloo benn télé bu accompagner mais je calcule le coût contact ñaata nit ngay xaar yow foofu boo demal 3000 personnes dama jël sama calculatrice ma def 3000 multiplié par 12 francs par exemple le coût contact j'achète le contact à 12 francs su ma la propose su ma contre proposition doo ko nangu parce que da kii daf ma yàpp alors que mais toi tu as 3000 personnes dans le stade au-delà mais ku ñëwul ci public ku ñëwul ci ci concert bi du gis sama produit pourquoi may fay loo xam kii ma ko donc c'est pas intéressant il faut mu am partenaire média koo xamante ni si buy concert bi daw fii après moom dina ko mun a tas nit ñi gis ko loolu c'est extrêmement important sinon bu ma la defee la contre proposition tu vas penser que c'est pas intéressant alors que man je gâche pas mon la dans la fenêtre. Mm-hmm. n'est-ce pas. mooy kàcc nga réunir. exactement mais mais yow organisation bi buggoon nga si taxaw. waay waay balaa nga koy fàttali ma parce que parce que oui vraiment. il nous euh, fi ñuy ñëwee di déposer à deux semaines ou mois. dépassé nañ ko dépassé loolu moom xam nga. mooy li wax on est. ma defaale ci benn parenthèse rek. fii am na benn rappeur bu tudd Elzo Jamdo bu doon organiser Canal Olympia concert. mu dem si benn opérateur de téléphonie boo xam ne couleur bi dañ koy lekk dañ koy xool li balaa ñu koy lekk. Mm-hmm. bëgguma orange ak gars yi ñu may porter plainte. donc du coup <laughs> je l'ai dit hein. Mm-hmm. c'est pas grave on est en direct donc je l'ai dit. Uh-huh. Euh, l'opérateur Elzo manageru Elzo moom moo fi indi Aya Nakamura mais dafa déposé woon dossier Elzo trois mois à l'avance ne ko ils ont un problème de budget en décembre les comptes c'est bloqué ils ont un problème de budget. mais Aya Nakamura a été programmé parce que dafa waroon jóge Guinée ñëw Sénégal mais bi Aya Nakamura dikkee mais ils se sont démerdés pour trouver un budget moi je me suis dit mais quoi attends c'est Aya qui amène le budget ou c'est quelqu'un qui demande à l'opérateur de réagir loolu mais ça ça les gens man j'aurais peut-être des problèmes mais ça bu ko ndaw ñu toogee di ko xool dañ naan mais ñii ñun ñooy consommer seen produit mais iñaane nañ ñu seen xaalis ñun ñooy woote ci seen téléphone. mais ils n'osent pas venir investir dans le hip-hop. mais qu'est-ce que le hip-hop les a fait. qu'est-ce qui n'a pas marché. parlant de médias il y a ouais. beaucoup de. mais c'est le côté émotionnel. non pas émotionnel rek. côté émotionnel non c'est pas émotionnel. si émotionnel c'est pas émotionnel. ko. waaw. je suis directeur de société. Mm-hmm. je suis fan de Carlou D. Mm-hmm. j'ai j'ai j'ai épuisé mon budget Carlou frappe à ma porte j'ai un concert. je fais de l' extension. mu mais l' extension ne ñu. non l' extension kay mais je suis fan de Caroline. <laughs> mais mais souvent a a a Damson le gars là de France. Damson il était venu. Pape c'est pas le directeur marketing qui parle. c'est le PDG qui parle. dama ne la ah. c'est le PDG. <laughs> qui est fan de Viviane. wala keneen c'est enfants en général. qui sont fans de euh, de moo tax ma côté émotif. émotif malheureusement mais mais benn affaire la. mais les enfants de DG là venez fan. Pape Pape <laughs> problème bi. Mhm. Euh, par rapport ak ñoom ñi yore ay produit di ko jaay. Mhm. dafa am affaire boo xam ni Sénégal il faut ñu régler ko. et je pense que ni nguur gi sax laay woo état mhm. bi. parce que tant que amuñu lan statut artiste. amuñu ay licence pour kan moo war a organiser kan moo warta organiser parce que ñi war ñu organiser. mais il y a des maisons de production. de de non non non parce que non li ma lay wax nii. li ma lay wax nii. moom non non même boo yow wax nga ko fi sànq sa wa. moom da koy organiser boppam nga organiser sama bopp. damay commandé c'est-à-dire j'appelle Matador ma ne ko Matador kaay mu ñëw sama bureau ma ne ko lii ak lii ak lii laa bëgg. et c'est là là aussi day wàññi ñun ñi ñi organiser ay événements. mais y a souvent, beaucoup de maisons d'événementiel au Sénégal souvent du ñu am sponsoring parce que ñoom dañuy xool dañuy organiser ak seeni produits ils organisent des te amuñu ku leen wax ni leen waroo leen a organiser. parce que ñoom suñu organiser organiser ñun mënuñu concurrencer ak ñoo ñoom c'est c'est côté parce que est-ce que. nga si marque combien ba taay. waaw mais c'est pas les gens de la marque qui t'appellent. c'est une maison de production wala en agence non attends essentiellement yow xam mais ñoom marque bi c'est-à-dire bu ñu jëlee élage mën na ñëw par exemple jël ci Pape Sidi Even Pape Sidi Even ñëw woo Matador fay ko man élage laay rendre compte moom daf may fay pour mu organiser ko kii ñemewul organiser bu organiser day ju événement laa bëgg lii mooy sama cible <laughs> waaw ñoom ñoo koy organiser ah, parce que dañ naan ñoo organisation bi moom mooy ils te feront croire que amul beneen dara lu fi nekk lu dul waaraani ñoo fi nekk si on peut se le permettre de dire ça. dañuy organiser mais dañuy organiser ñoom dañuy organiser. même ay ay alors que waruñu organiser. na leen er, er, dañu war a gis ñi nga xam ne ñoo habilité à organiser ay événements. Uh-huh. xam nga ñoom <laughs> ñu liggéeyee ak ñoom. ñooñu la ñuy ni ñuy def si làmb bi. ñaare oui. Euh, xam nga bu soo gis benn produit ñu ni la moo organiser combat bii. Uh-huh. est-ce que yaa nga mais souvent dañuy jël seen benn camion dem teg ko ci benn plage wala euh, ak lépp camion bi yow yaa xam non ñun di ñu ngi ci ci euh, euh, on est pas seulement que des artistes dañu nekk ci biir affaire bi tamit quoi dama ne la show ak business. Mhm. et ci biir business boobu noonu dafa am affaire yoo xam ni régulariser wu ñu ko au Sénégal. Mhm. te loolu tant que régulariser wu ñu ko mooy ni ku nekk mën na nekk artiste ku nekk mën na nekk organisateur. Mhm. et souvent ñoom ils ont ils auront même sax des problèmes souvent quand ils vont organiser. parce que souvent ils vont ils peuvent tomber sur la bonne personne. wala mën nañ tombe ci koo xam ni day soog a ñëw ni bon ah sama kii laa yore def ko mu fiage ko après ñu ni non je vais eh. plus travailler avec le hip hop eh. il énormément de choses à revoir à revoir on va y on va y revenir maintenant dañuy dikk ci kanam dossier de sponsor lan la ci waa ji di def kañ la ñu a bind dossier de sponsor boo bindee de bëggee bind dossier de sponsor naka nga koy bindee parce que ñun dañuy jël rek taf yëngal man la Pape Sidi damay organiser benn événement <laughs> Matador ils déposent des Sénégal affaire il y a moins de 10 Matador mais tout le monde veut être sponsorisé par les mais Fou il souffre avec son il a énormément de euh, Matador qui souffre nga ni Fou nga fa gis fu ma la sponsor yu bëri Eh, son sooy mais non dafa am eh, loo ñun li ñuy wax boog. yoo eh, xam ne ay partenaire lañu. partenaire boo fa gisee logo Africulture léegi <laughs> gis fa logo bés ay logo neuf neuf. mais quand tu vois Port autonome de Dakar quand tu vois ministère de la culture l' ambassade d' Allemagne. mais yooyu yëpp c' est stratégie xam nga li ñuy les sponsors mën a apporter dëggantaan. waaw tolloowul ak ñooñu li ñu lay apporter. mais c' est que les budgets du festival là. les sponsors ne pourront jamais supporter lui il parle de cinquante millions de budget de sponsors. mais c' est pourtant benn benn artiste étranger bu ñëw dañ ciy def pratiquement. mal euh, plus que li ñu li ñu leen laaj. le côté émotionnel il va nous dire ça tout à l'heure nous avons euh, sur le plateau deux jeunes exceptionnels nous allons nous entretenir avec eux euh, xaw ma ndax man maa war a bouger xaw ma euh, gisam si maa ngi lay ziar. delloo ziar Pape Sidi mbaa yaa ngi si jàmm. ngi yaa ngi déglu waxtaan boobu ba léegi. waaw ñu ngi déglu waxtaan bi. loo ci comprendre wala da am nga loo ci bëgg indi comme élément de réponse wala da am loo ci fekkee loo bëggoon a wax am nga si loo bëgg wax. waaw su ma amee lu ma si yokk juste euh, grand bi laay appuyer rek si li mu wax sànq. mooy que euh, voilà parce que moom <laughs> au niveau des groupes euh, il fallait ñu ñu organiser aussi. parce que tey da ngay gis groupe de rap yu nga xam ne artiste bi moom mooy defal boppam lépp. cest dire ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw artistes yi foog ñu dem formé wu que ça mhm. soit marketing que ça soit communication. mais c'est ce qu'ils font à Africulture. ils font beaucoup de formation mais loolu moo tax ma ma jël ci waxam parce que. man xam naa ci dara déjà parce que euh, suñu amee attestation. hip hop académique tey ci loxoom la jaar ma ko ci biir de passage ak toute l'Africulture. pour wax la que ni rek loolu ñoom dañ ci jouer rôle bu mag. Mhm. Euh, beneen bi mooy euh, au niveau des localités aussi maires yi foog ñuy jàppale artistes yi. parce que maires yi ah les mairies. waaw surtout ça laisse-moi croire des choses. parce que parce que voilà dafa am solo trop. tey ba day euh, bay ci sa weewu tànk la ñuy wax. Mhm. comprendre nga tey dañuy am ay organisation yu nga xam ne dañ koy def ay ay événement mhm. dañuy bind yóbbu ci suñu ay maire mais souvent doo gis benn réponse mhm. te loolu ay problème la yu nga xam ne dama ci profité pour jàllale waale message parce que lu ma wóor mooy nekkul ñun kese ñoo koy ñoo koy dund mhm. tey euh, def démarche pour am ay sponsor yooyu peut-être loolu baneen baneen baneen baneen aspect la parce que mhm. c'est comme lu ma wax tout am ne dañu xereñ ci côté yooyu dañ ko xam mën a bind euh, ay ay ay ay euh, demande mën ko teg ci yoon ba nga xam ne dinañ ci mën a am retour yu ñu soxla mairie ñoom obligation la ci ñoom pour ñu jàppale jeunes yi culture voilà surtout association culturelle et sportive mooy ASC. E. Mhm. mais ñoom yàkkamti nañ ASC e bi ñëw solliciter leen. ba ñu dem def coupe maire jëndal ASC e bu nekk bal. jëndal leen coupe jëndal leen jeu de maillot. mais les artistes personne ne s'occupe d'eux. malheureusement ça c'est un moom la continué a les comédiens. y a les artistes plasticiens. Mhm. y a les rappeurs y a tout le monde qui est là on bokk même budget mais dañ koy jël dugal ko budget mystique. et budget mystique Sénégal malheureusement kenn du ko audité kenn du ko compté <laughs> kenn du xam ñaata la kenn du xam ban sëriñ ñaata lañ koy fay ñaata nen la wax ñu jënd. ça c'est vrai malheureusement. Mhm. alors gis MC euh, yow trois fois nga dem final flow. waaw trois fois la ñu final flow bi yow am jom ba. <laughs> mais Barcelone ça fait trois ans quatre ans mi ngi nii euh, jëlu Ligue des Champions mais ba léegi. ñu ngi Barcelone du équipe bu baax bu ko waxati dégg nga wuy ma <laughs> Barcelone dangay wax Real équipe bu baax équipe yàlla bëgg. lu ma bëgg a wax ci loolu du dem pour dem rek ne damay c'est-à-dire objectif final bi mooy dem gagner ji ko c'est comme bépp compétiteur. non mais j'ai j'ai vu le, le vainqueur de cette année euh, Ndobin il était là il est revenu. solal beneen mbubu gaynde après mu solal mbubu xar. quatrième fois xaw ma troisième participation ci la ko door a gagné te fi mu ko gagné daa neex 5 yow xëy na déwén mu nekk 10 nga gagné ko. bu si gars yi jàpp amiin <laughs> ah mais mais c'est vrai que initiative bi. Mm -hmm. au départ nous on s'est dit on va s'investir parce que il faut faire rêver. Euh, jeunes yi nekk ci hip hop bi dañu bëri. Mhm. bu ñu ah, jox leen espoir. Mhm. ci li ñuy yëngatu muy musique wala leneen. donc ci es biir loolu noonu on s'est dit nañu na nañu commencé def parce que lamb bi même galgal yi la même mbot yi la ba léegi. Mhm. pourquoi ñu ciy def xaalis bu bëri c'est parce que am na. benn kii bu. mais lamb ji dafa am dóor te commencé guñ dóor. il faut que ñu commencé dóor aussi waxuma kii sax lu ci changé ba benn benn lutteur di fayee ko cent millions wala cinquante millions. pourquoi pas si hip hop bi on s'est parce que xaalis bi moo tax mu am euh, mu am enjeu yi gën a yokku. Mhm. ba mu commencé am ay euh, commencé ay dix million vingt millions trente cinquante cent millions enjeu yi après dafa atteindre benn dimension populaire bu graaw. Mhm. on s' est dit ci hip hop bi man boog je me suis dit que on peut passer par là ñun dañuy def flow up ñu commencé million nga mhm. Ngaaka Blindé gagné ko. Euh, de passage ñu ngi koy. Chara Chara xam nga waaw donc ñu dem. deuxième euh, édition bi ñu am Union européenne mu accompagner ñu dugal fa dosier bi dossier bi jàll ñu am deux ans mu accompagner ñu on am ne ça a deux millions mhm. ñu jógee deux millions dem trois millions espérant que ni dinañ am ay sponsor parce que boo gisee Flow Up Flow Up vraiment pour ku mën a sponsoriser nawetaan war nga mën a sponsoriser flow up. parce que mhm. dimension populaire moom kenn waxaalewu ko ko mhm. franchement par rapport ak flow up je ne parle pas de nos yeneen événements yi festivals yi mais flow up. kese mais toutes les conditions dont El Hadj venait d'énumérer. mais ont ah, été ah, respectées dans la chose ñun wax ñeneen mais ñun ñun ñun ñun Pape duñu ay coomo duñu ay cuune. Mhm. wax dëgg yàlla. Euh, ci ci deadline yeeg euh, xam nga euh, li pour déposer ay dossiers pour les partenaires. on le fait pas pour faire ça déjà bu ñu paree le lendemain xam nañu année bii di ñëw lan la ñuy def commencé nañ ci liggéey mhm. donc euh, vraiment cuunewuñu cuune boobu quoi mhm. mais espérant que dina am benn sponsor bu ñëw même pas pour l'initiative boobu nga xam ni day jox espoir ces jeunes là mu nekk compétition boo xam ni hyper positive mosoo cee dégg. 21 juin xeex yow moom mosoo cee dégg 21 yow ak benn xattaar ni hmm. laa leen wax ne leen venez on monte un dossier on va prendre la télé. on va aller voir les sponsors ñi ngi ban mois mars juin euh, kañ lañ def finale bi. février. février mars ñi ngi mars. on a fait la finale en février on a trois mois. on avait la possibilité de d'aller voir El Hadj parce qu'on avait l'opportunité de faire l'apport média mais bon boobu yow. yaa ngi woon ci say tërëri comme yaa gën a. yaa gën a bëri tànk avion yi. ci aéroport yi et puis on a fait ça on a fait ça foofu yaa tooñ. dinañ si ñëwaat déwén on a fait ça yow xam nga ah, fait ça ah, xam nga juin bi foofu gars yi après mais la gars yi taal juin bi mais non mais Pape ma yeggale xam nga li ñu dagg il a participé gues cinq teg amuñu sponsor bu amoon sponsor léegi ñu dem dix vingt millions non bu ngeen ko tegee flow up damay rab mais mais loolu lañ ci soxla kii loolu lañ ci soxla parce que engouement bi pour mu ñoom tamit ñu ñu am mais on peut pas trouver on peut yoo xam ne dëkkuñu ci réew mi ñu encourager initiative boo xam ne c'est pour des jeunes sénégalais mhm. parce que ñii nii bu ñu leen encourager loolu mooy indi gars yi gedd jël gaal gi wala leneen excuse-moi le soin de le temps de terminer avec euh, euh, gis euh, yaa ngi woon ci Flow Up bi donc tu ne veux pas lâcher l'affaire et tu étais en train de parler de quelque chose concernant les maires mais est-ce que booy aay nga est-ce que du ñàkk aay moo tax gagné wuloo final. waaw loolu moom euh, du ma déjà koy bàyyi ak ñi nga xam ne peut-être ñi ngi may suivre et puis ñi ngi doon seetaan. mais ñi lay suivre nii suivre ñu la woon tey de tey dañu bëgg nga dem taxaw fële. booy ayca jugal. ah ma Aïcha toog toog fi nga toog Aïcha ba pare toog fi nga toog tu prends ton micro ah tu amènes la chaise. c'est benn tremplin compétition. Ah. donc euh, c'est comme euh, c'est événement bi mais bon. dañ ko lancé Sénégal yëpp. donc ah, ils vont s'inscrire en ligne. non non ils s'inscrivent en ligne. donc am. yéen a ngi en direct bàyyi leen ba ngeen pare. <laughs> on peut les applaudir très très fort. <laughs> Matador daal mu ngay waxtaan ak waa ji ce gosse derrière moi il s'appelle Guess MC écoutez il a été trois fois en finale et c'est pas gratuit pour arriver en finale of Love parce que c'est des milliers d'MC qui s'inscrivent à partir du web et qui se font présélectionner par les jurys les plus populaires les plus talentueux du hip-hop sénégalais et dans le, dans les cultures urbaines ñi remporté flow up yëpp bi ñu paree ku dégg ne ñoom ñoo remporté flow up ne nga gongo y a quelqu'un qui a été en finale trois fois peut-être Il n'avait pas la chance. Mais on va voir de quoi il est capable. Sous vos applaudissements, voici la prestation du jour. Samsi. Uh-huh. Mama Kumba, I love you, man. Uh. Dundu. Uh. Yeah. 9 8 8 nag keroog laa judd juróom-ñaari fan keroog keroog lañ ma tudd jëmu firi fudd ma am tur lu bari ma wund tiit ak njàqare ci àdduna bii ma war dund ci misaal gune laay gisaat suma jaaruwaay mu may junj ne gune daal mooy doon lu ne waay juróom-ñaari at laa xàmmee ndeyjoor ak càmmooñ lu néew ma fàttaliku ci tànku meer laa daan dallu muy mooñ mu ñëm bi taaru bi meer bi daan muñ lu metti lu bëri lu ma teg bët lépp ma gis meer di muñ jàngal ma dal yar ak teggin ngor ak kersa ne ma bàyyi fi la sa ngor di royee nag rekk des ca jotuma miin baay ndax bi may ndaw la tuxu des ci su ma yëg ndax lu ma dégg keroog ci ay yuuxu wàlli jugee fu ne xol fees ba tooy ma jooy keroog de jooy naa lu bëri ak li may doon ndaw lépp tout le monde levez la en l'air les gars nii wayal waay wayal tout le monde aha jiya wayal naas wayal aha eh. wayal waay wayal aha après nga seetaan ko ci télé. ma ci bi ma ndaw bàyyi baaro këf ma tax ma teel a def tekk ndax kay maanaam defal ma jafal ma waaye lu bëri lu bëri mu xamal ma ma dox lu bëri xam lu bëri dund lu bëri gis lu bëri joo bandi bi wuri ma xuus jéggi jàll dem far lu ñor tab bi du ma wor ma jàpp bañ a wor gudd fana ma yéem na kon ma giññe naa toli doon ki ngaf raw bopp maar la ci selal xol yi ak dumbaay waxal ma benn du yàkkamti sas bee ma diisal boobu ba léegi yàgg na métti ngeen dékku nangu ma jiital xaw ma woon ni day tol nii par amour la ma dikkee gis nga léegi fi ma ci toll ma ñàkk a job may sikkee xal yoon bi indiqué taxal taan beeg set ci leeral fépp ni syndiqué yàggatul pandi bi wuri coow li joli ma bay tooli yàggatul dara ma seral xol yëpp ba dina wërngal këpp tout le monde les gars Joël Nas, Joël, tout le monde. Ni, eh. Joël Nas, Joël, aha. Kai fi Nas, Kai way. Eh, Joël Nas, Aha, aha, aha. ma jaar ci foore bi rab ak mala yi ba noppi soor a ak si wàcce level bi rab ak xale yi ba noppi soor a teer si cofeelu badu ak ibu jox ma gëm ak wóolu gaalu xaj bi duma ci tibb yar xolu dégg xas ak moolu métit ak xiif ma wéy ci weetaay bu yàlla di fekkee gàllaa ji ndawam ci tubay duma taxawaal fiñ koy tekkee ñeewu ma kenn ci alal ne doonul ci la tënk tekki ndaw ëmb yàlla la waxtu ko neex da koy tekk dinaa wax jëli ji wax tekk wax segg ngeen dégg bu weesoo ñiy taxaw am na ñuy ñëw seen ginnaaw ma bind téere tegtal ba fi bañ saaw siggil wax ma kaar kaar yoonu ndaw du gaaw ma xàll yoonu dëgg mu set set fu neex waay aw ku góorul ci dara doo gore seen cofeel sama doole jote fa fi ngeen may xoole ki daj fépp jarul boole naas ki daj fépp jarul boole booy Hey, c'est elle qui a chanté happy I didn't learn the fake man. Hey, eh, I miss you. My man, bro, it's been a long time. Rest in peace. Hey! Hey, eh, Naz, hey! Eh. ah yow de Naz Nazoo oh, moom <laughs> t'es pas Naz du tout Aboubacar ah, <laughs> xoolal Naz nag bul jël numéro <laughs> Naz régil non mais c'était super grand léegi nag xam nga loola manqué da dem ci maama ni ñu sang la yow sa bayre daa des. <laughs> gisaaneel naa la mën ngaa rab waaye da ngaa desee siiw. <laughs> merci beaucoup. <laughs> nga dëkk. maa ngi dëkkee ginnaaw ginnaaw raay. ginnaaw raay waaw. ah xanaa ñu ci ñi ñu bokk ci ñu am yaakaar ci Pikine. incha allah Pikine moom am nañ ci yaakaar lool amoon na jamono joo xam ne le hip hop était en ébullition permanente à Pikine. mais de nos jours on a tendance à se dire. lan la gars yi Pikine di xaar pour fël. te loolu mooy suñu combat Pape Sidi. yaa may wax tout lan moo tax bàyyi woo mais euh, déjà trois ans yëpp weesu ci flow bi Pikine euh, wala boog ginnaaw raay benn représentant lay am. Mhm. muy gisem mhm. si. peut-être loolu tamit euh, gën na ma pousser chaque année mooy nekk di participer c'est juste pour refléter ma localité et puis. Mhm. pour wane que ne aussi ba léegi ginnaaw mi ngi mi ngi dese ay artistes. Pikine mi ngi des ay artistes di leen wax ne kenn rek ñi ngi ñëw. et puis euh, tout récemment def nañu euh, benn EP de sept titres le 20 octobre passé boo xamante ni déjà mi ngi ci marché bi. Uh-huh. Euh, te ñu ngi si liggéey bi quoi. ñu ngi ci uh-huh. liggéey bi te dinañ ñëw. man marché la nekk exactement. <laughs> Eh, mi ngi ci marché bi ah gars yi mën nañ ko am fépp. peut-être damay bañ a laal rek. mën na nekk marché bu fi waa Almadi duñ ci jot mu nekk marché Pikine waa Point E duñ ci jot ban marché comme ça. <laughs> déjà mën nañ. en tout cas il faut le mettre sur le am ah, mi ngi si mi ngi si je pense que bu nekkee si internet bi gars yi nañ download même si c'est on paye. Mhm. avec crédit pour l'avoir je pense que c'est une bonne technique. déjà mi ngi si marché bi nan naan si net. mi ngi net bi mi ngi ci bi fay. <laughs> Guissame si en tout cas je vous demande encore une fois de l'applaudir et de l'encourager merci pour cette prestation. avec la surprise que vous nous avez fait avec euh, Naz. merci Naz mool nga nag mais sama jabar rek may seetaan daal waxuma dara bébé j'ai rien dit incha allah <laughs> je vais avoir des problèmes incha allah à la maison. alors maa ngi ñëw ci yow Abou Bekk ñu ngi ba tey ci waxtaan bi entre ki nga xam ne moom moo yor produit am nekk rappeur ak ki nga xam ne moom moo yor produit am nekk jaaykat en quelque sorte dañu war a gisante est-ce que obligation la El Hadj c'est là où je veux venir. par rapport ak ñi nga xam ne nu par exemple moi je me dis c'est une obligation que Dakar Dem Dikk Soleil port autonome de Dakar RTS accompagne les jeunes sénégalais qui sont dans l'entrepreneuriat euh, ñu jàppale ñu obligation la man bu ma gisee ñooñu ma lim ñu sponsoriser ay artistes yu dëkk yeneen réew ñëw fi bàyyi doomu réew mi gisuma ci ñu sponsoriser ci kenn j'ai du mal à gober ça mais ñii lan moo tax ñu nekk ay société nationale waa réew mi moom leen ba pare du ñu jàppale ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi même bu dee mécénat la ñu koy def xam naa ni on peut pas rapporter grand chose au autonome de Dakar mais on peut quand même porter la communication visibilité proximité ça c'est des trucs comme est-ce que obligation la ci ki nga xam ne secteur privé la nekk di investir pour mu sponsoriser gars yi est-ce que dañ koy bind si seen papier yi ne obligation la ngeen jàppale entreprise Gorée. du du obligation. pourquoi du bu xam nga tu as cité tout à l'heure Port Dakar Lonase et cetera. je pense que ñooñu pour peut-être faire le ñooñu par ñoo war a tourner gëstu jeunes yi parce que c'est des structures publiques xam nga di am ay subventions état xaalis bi di dellu ci état bi je pense que obligation la ñoom ñu mën a réserver ay budget yoo xam ne dañuy accompagner initiative jeunes mais bu dee privé bi la. privé su ma neexee ma ne du ma communiquer y a des y a des produits qui marchent très bien sur le marché. am na boisson bu ñuul bu niroog café Touba. da leen mës gis ñu publicité. du ñu publicité du ñu publicité dañoo soxla wax naa la culture de la publicité de la communication. xamuñu ko sax et pourtant ñi ngi ñi ngi liggéey di dem peut-être bu ñu ko xamoon war na dana mën a peut-être booster seen activité mais ci ci ci loolu noonu je pense que dafa am benn relation bu bu am solo bu ñu am. ak ak ak ñoom parce que c'est la cible te lépp lu yëgu ci cible bi rek sa ça intéresse le produit parce que produit bi c'est décidé par rapport à cette cible là maintenant man quand je une entreprise euh, may jaay ndox par exemple je donne un exemple euh, autant ñii dañuy nekk sama cible autant mbalax bi day nekk sama cible parce que ça ça draine peut-être en beneen genre public hmm. autant borom conférence yi ñu nekk sama cible. parce que table conférence day am ndox. ustaas yi euh, je peux donner d' autres exemples. Mm-hmm. xew yi ngénte yi tuur yi les autres même décès yi ah. parce que day am nit. effectivement dañuy doon sama cible maintenant arbitrage lay doon j'ai cent francs j'ai mille événements je ne peux pas sponsoriser tous les événements c'est pas possible sinon je risque de mettre et ça ne va pas être rentable. Mm-hmm. donc il faut que choisir. maintenant choix bi may def dafa lu bari lu koy recouper. mooy les quatre que tu nous avais énuméré la dernière. voilà et puis ñoom aussi il faut que ñu am benn benn benn approche inclusive c'est-à-dire ci ci seen façon bu bu ñu rek tëju ci benn benn benn nekk réfléchir man j'ai beaucoup de respect pour le pour le hip-hop parce que pour man inspiration dëgg foofu la jógee. Mm-hmm. et je, je les écoute dama leen di déglu dama fay dem di seetaan parce que c'est une pour man c'est une source d'inspiration am na affaire yu bari foofu laa koy xamee j'écoute le rap. Mm-hmm. pour man li ñuy produire en termes de d'œuvre intellectuelle du ci yeneen musique yi. yeneen mm. musique yi c'est beaucoup plus de bruit mais ñoom quand tu les da ngay xam ne ñii dañoo gëstu. fait la recherche. Mm-hmm. dañ ci sonn te li lay wax boo ko seetee. en général dafay nekk dëgg. dafay nekk dëgg donc bu ñu tëju rek. xalaat benn affaire bu am doole ci ñoom parce que quand tu dis non je vais sortir une bombe une bombe par rapport à toi mais ça peut. <laughs> Ah, <laughs> ne pas être une bombe. yaa ngi wax xam ne ku yor 100 francs ma may ko ah, parce que rappeurs yëpp on a ça dans le sang ñun ñëpp bu ñu nekkee studio yi maa ngi préparé album. bomb lay doon bu génnee. parce que ñoom euh, aussi il a ñoom aussi il faut que comme li Matador Sàng wax dafa wax showbiz. dafa am solo. Mm-hmm. ce que tu fais ce que tu fais c'est pas seulement d'alerter l'opinion. du ay casse. Mm-hmm. tu as un produit que tu veux vendre. Mm-hmm. da nga bëgg jaay comme man mi ma dem ma dem ma defar benn produit def ci emballage di ko jaay man ak yow ñoo bokk kiif kiif da ngay jaay damay jaay. tu dois avoir dans l'esprit que man je vends parce que li ngay def bu amul rentrée d'argent mais doo def carrière. déedéet doo dem il faut que dans la façon de le fair nga ubbeeku ci et puis nga xalaat aussi jaay ba am na produit yoo xamante ne si suñ ko defaroon kenn du ko jaay kenn du ko jënd. produit waaw. ci façon présentation bi wala naqari waay beeg yooyu. exactement mm-hmm. am na ji yoo xam ne bu ñu ko defaroon kenn du ko jënd. Mm-hmm. amul amul amul amul amul amul ku ko du am pub marché boo xam ne dañuy def xaalis lu le feront moo tax produit doo ko dégg doo xam sax. am na bu siiw sax boo xam ne yàggoon na aji na matu moom lañ doon raxasee cin non mais il a raison. comprendre mm. moom tamit buy xalaat je parle du du mouvement hip hop. Mm-hmm. booy xalaat sa sa projet sa œuvre xalaatal ñi lay déglu ban effet la am ci ñoom. Mm-hmm. mais aussi xalaatal da ko war a jaay après. tu vois j'avoue que j'avoue comme li wax sànq franchement y a y beaucoup d'amélioration parfois ma jot ay dossiers yoo xam te ni très franchement je me donne le plaisir de de de lire de regarder xool li nekk ci biir woo borom ni ko peut-être tu passes on discute pour voir un peu lan la lan lan qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Mhm. parfois nga jot ay dossiers yoo xam ne aussi peut-être ça laisse très franchement conseil yooyu nga xam ne dañuy teg ay et puis je bannis une chose. Mhm. je bannis une chose. man pour man lan la ñu war a bàyyi. la war a bàyyi mooy les packs là ay packs bronze platinium sommet quand je vois ça <laughs> non mais c'est pas sérieux. pack bronze ba platinium ba gold. c'est pas sérieux. <laughs> du du rek du rek euh, hip hop yi ah ji parfois ñu defal la xaw ma or cent millions xam nga dafay yoo xam ne si tu sûr que mais quand tu leur proposes cent millions ils prennent. ouais c'est pas sérieux maintenant comme xam nga man de suis intéressé parce que man xam naa ni chiffre bii nii c'est un chiffre faux mais ay yaanaa am na ñoo xam xamuñu ko dañuy gis ni ah bon c'est pas destiné pour moi peut-être ñi waa Sonatel wala leneen wala leneen autant excuse-moi. nga donc il faut que ñu privilégier dossier boo amee situation projet en événement événement bi ngay wax nii man franchement awma ci benn connaissance et pourtant je suis dans le milieu. Mm-hmm. le flow Ah, tu pas dans le milieu là. Si, je suis dans le milieu. On va vers la. Bon, dans le milieu, entre guillemets. Mon Facebook là, def milieu. Parce que, parce l'école euh, euh, génération euh, old school, ça, je peux comprendre. Mais la nouvelle génération, non, je, là, pense que, je pense que ni euh, flow up, euh, même si nous sommes vainqueurs, nous sommes au devant de la scène actuellement, nous pratiquement buñ nañu wax ni jaar nañu flow up. yow ñaata événement nga xam Sénégal Festa 2H. xam Festa Festa 2H. non non xamoo ko xam nga euh, xam nga flow xamoo flow mm. euh, xam nga xam nga xam nga xam naa boobu naa boobu ak euh, bon bari naña ruq bi y' a plein de festival ah. yow yaa ngi sa festival boobu nga xam ne démb. waaw am na yoo xam festival Thiaroye 44 bi yow ñi ko defar daaw lañ ko créé. yow nga bëgg lu xam ko tey te flow bi daf fi 10 ans booy bàyyi ma. Eh, mais Pape. Euh, alors j'ai envie de dire qu'est-ce qui a fait que nga xam yooyu. te mu manqué communication si flow ak si. festa xam nga su ma nee maa ngi ci milieu bi peut-être bon c'est c'est c'est. Euh, c'est trop dire. parce mmh. maa ngi ci beneen level maa ngi je suis un un économique. su ma mmh. xëyee dafa am ci benn ligne directrice bu may bu may nekk. cest man juste normalement je dois être une cible par rapport ak ñoom. Mmh. war naa ko xam normalement. yow dañ la war a jaay force la ko nga jënd ko nga xam ko force dama ko war a xam. bien bu fekkee ñoom ils font euh, li seen liggéey ñu koy def normalement. pour dire la vérité ah. yow foofu man kalaas kalaas na la foofu. non parce que est-ce que ñun man personnellement je pense que ni. Euh, tamit peut-être il a raison. quels sont les canaux de communication utilisés dematuñu vers ñoom. parce que comme par rapport à sa en tant que cible. quels sont les canaux de communication utilisés euh, pour euh, la promo de Festa 2H parce que le hip-hop le connaît bien. mais la cible devrait quand même mieux connaître. mais xam nga comme li ma wax si suñu amul ay sponsors ñu am ay partenaires yoo xam ni peut-être seen bu ñu lay jox xaalis daa am fu mu war a dem par exemple quand tu as. Euh, l'institut français bu Paris bu la jox xaalis daa am fu mu war a dem. Mhm. ci festival tu ne peux pas payer la communication avec. Mhm. donc day boo amul ay sponsor souvent côté communication fii nii c'est la télé. on fait tellement de c'est les affiches c'est quoi et, et c'est des flyers on fait tout ça peut-être côté visuel télé bi moo des et ça dafa am coût. Mm. boo amul demanda malal il galère chaque année. boo boo amul partenaire wala télé bu lay accompagner. ça devient difficile mais le show of the year c'est pas c'est pas télévisé il y a pas de partenaire. mais benn benn jamais eu benn concert la. Mhm. et euh, si je sais pas comment il il il fait mille deux francs mhm. euh, pour organiser. amul euh, <laughs> amul sponsor moo si gën a sponsor et tout. bien sûr mais mais c'est. xanaa waa Louga yi ay sponsor lañ parce que mais imaginez moom benn concert. nous on a combien de jours de festival. quatre jours mhm. minimum et bokkul ak maintenant les ateliers les les les conférences qu'on organise tout ça c'est presque dix jours d'activité qu'on organise et vraiment ça fait c'est là on va on va vers la treizième ou quatorzième édition quatorzième édition pour le Festa 2H. on a on a des billets d'avion. Mm -hmm. on a des hébergements à gérer pour des gens on a minimum entre dix et quatorze pays. ce que je dis ça se passe au Sénégal ay étranger yow da ngay fekke ah, flow euh, c'est ça et tout ça vraiment une fois deux fois trois fois ñu ngi ci quatorzième édition chaque fois les gens les gars quand ils répondent mais après. mais tu le festival l'année dernière tu, tu, tu, le 21 juin c'était en direct à la télé. à la télé mais je sais pas mais, pourquoi mais, ça n'a pas continué. ça fait ça, ça fait trois. Euh, <laughs> euh, à la maison de la culture d'Outa Seck ouais. il y avait un Pikine il y a, ouais, il y a beaucoup de. Et, et là on ne peut pas nous dire parce que on a fait Onyx on a fait. Tazafex, mm mm-hmm. on a fait euh, MOP, euh, on, on, a fait Youssoufa, on a, euh, Medine. Et jusqu'à présent. On est toujours dans le hardcore, nak mais, mais, mais, mais Youssoufa, tu, tu, peux dire. c'est c'est eh, c'est un hardcore, hein? Mais indi nañ fi ñu mooy hardcore te doxul. Kan? Euh, je sais pas eh eh <laughs> noppi amoo micro euh, gis nañ fi concert yu ñu def yu ay sponsor yu am doole jàpp mhm. doxul bari na eh, lool eh, eh, concert yi ñuy def place de la de la la souvenir africaine yëpp du dox. Ah, mais parce que du dox. du dox parce que ni muy demee la parce que munoo jël ñi nga xam ne ñooy liggéey ci domaine bi. nga tëb leen 365 jours sur 365. ñu ciy liggéey xam ko maîtriser ko nga tëb leen parce que y une personne buy indi benn euh, koo xam ni am na buzz sur la net wala dara nga bëgg ko indi Sénégal bëgg a jénne Sénégalais ñu dem seetaan ko. des fois ça peut marcher. Mhm. Test. des fois ça ne peut pas marcher. des fois du jàll. waaw 30 secondes. mais mm-hmm. Matador j'ai un événement. en fait test la test la nii. test la du dëgg. j'ai un produit que je dois lancer. il me faut faire le tour du Sénégal il faut peut-être présent dans les 14 régions. je veux un interlocuteur koo xamante ni si moom laay ñëw. wax ko li ma bëgg mu defal ma programme. budgétiser ko. defal ma route liste planifiée. moom mooy gérer logistique am. Hmm. mooy gérer communication relation ak média yi. Hmm. mooy recruter personnel bi mooy def lépp est-ce que tu es de le faire. loolu ko mënul a def nag ñu bàyyi. non sérieusement buñ ko mënul a def mooy ñu bàyyi mën nga ko war a mënoo mais buñ ko mu alaaji mën nga ko war a bàyyi waxuma la ñun mais tu vas aller voir Buzz Events nga xam ne sax eh, ñu ñu jiitoo la nañ la ay années mën nañ la ko defal tu vas aller voir neuf neuf mën na la ko defal il a fait avec le ministre. Euh, diversité euh, culturelle diversité culturelle on a tellement d'exemples. waxuma la les quatorze régions. daf ko def mais c'est quoi parle pas de la pensée. mais c'est quoi ton budget c'est combien ton budget. Euh, naa la ko defal mais c'est combien. non non non koy def. xam nga je vais pas du ma ñëw tey nit ki jox ko benn chèque ni ko dama déedéet. non xam nañ ni demee noonu il faut que ma xam mhm. il faut que ma xam assise financière am. il faut que ma xam assise financière am. il faut si j'ai 60 millions en banque. non non si j'ai 60 millions beneen beneen beneen question. bu gën a bu gën a si c'est des chiffres question bu gën lambda. Euh, euh, non loolu moom. je te paye en trois tranches. Hmm. au départ je donne pour cent. Hmm. Hmm? bu ñu demee ba bay jeexal. bay jeexal je donne 30 pour bu ñu paree événement bi deux mois après je donne 50 pour cent. léegi qu'est-ce si ndax am nga budget de roulement. ndax tu es tu as la possibilité aujourd'hui mm. de trouver les moyens mm. de faire l'événement parce que en fait événement bi ça ça demande de, de la logistique euh, bien sûr ça demande des relations avec la presse personnel le personnel il faut savoir tout c'est un management xam nga non aujourd'hui mais c'est pas la question ils sont dans le hip hop ils sont quoi ils sont dans le rap non mais on organise on organise les gars s'il vous plaît tu peux pas être dans l'événementiel mais dans le management de l'événementiel. mais eux ils sont dans le rap et ils organisent des événements hip-hop donc en quelque sorte ils sont dans l'événementiel hip-hop. non attends xam nga il te parle de quoi dix jours d'événement. Mm-hmm. moi je te deux deux mois d'événement non stop là. xam naa ko def nañ ko. def nañ ko du ndànk mais loolu c'est des centaines de millions d'investissements sur des structures qui organisent et qui n'ont pas peut-être euh, euh, comment dirais-je euh, le le droit d' organiser. Mhm. ñoo xam te ni Siteu dañoo ñëw ci mouvement bi bokkuñ ci. bokkuñ ñu organiser dama tiire loolu. mais dama ni loolu. c' mhm. un business. Mhm. c' est un business. li yéen lu bu ñu waxee ay entreprise lañu yore kay di organiser di organiser ay événementiel c' est parce que am nañ gars yi am nañ capacité bi ak connaissance su mën a def loolu. bien sûr Argo. parce que je cité j'ai cité nous par exemple on a un festival mais ñu am na ñu gën a spécialisé wu africulture que si événementiel mhm. que bon boo demee euh, wax naa la ko léegi Buzz Events mhm. loolu mooy si boo jëmee Jolof for Life. Buzz Event mooy euh, est Paco ak ñoom Kals et Paco et Kals. Euh, <laughs> hmm? bon y' a y' a y' a Simon qui qui qui liggéey si loolu. boo xamante ni si. maanaam amoon nañu contentieux. <laughs> buzz ah bon je sais en tout cas. bàyyi leen waxi buzz on est dans l' événementiel. contentieux yi la ñuy bañ a régler. non non non bàyyi waxi buzz. pour te dire que parfois parmi eux y a des gens xam ne c' est de mauvaise foi. waaw waaw bàyyil bàyyil mu seet Alaaji. en tout cas man damay cité ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñun xam nañ leen parce que nag du ñun quoi nous on est ñun afroculture lañ tudd. on est dans ci formation accompagnement un peu on fait de l'événement c'est de la production mhm. vraiment ci secteur ci secteur bi ci yooyu yëpp dañ ci liggéey quoi maintenant euh, si c'est les c'est je pense que on, tra euh, on, euh, on a travaillé avec plus de cent millions ci comme ay chiffres mhm. ci par rapport ak ay événements donc euh, du loolu mooy problème bi mhm. capacité bi aussi pour pouvoir organiser événement yooyu je pense que ni loolu tamit du mooy problème bi parce que expertise bi mi ngi fi quoi. Mmh. maintenant le problème qui se pose mooy ni les gens ils nous font confiance. mais ñii yëfi dof yi ñu bugg boo bis boo duggee mat. billaay nga ba ñii seen programme bàyyil ba pare ñu waxtaan. mais moi je pense que nga am nga ni ma pour cent nga may jox au départ aussi est-ce que ça c'est c'est mais c'est ce qu'il faut avec les agences d'événementiel malheureusement. Euh, parce que c'est pour seet ndax ñoom <laughs> ils sont solides pour pouvoir organiser tout ça. <laughs> ah mais si hip bi je pense pas que. am na ku mën na ñu ñu mën lool amut ku ko ci mën Abou Bekr je vais avant de terminer dañuy waaj a jeexal li des bëriwul Abou Bekr est-ce que est-ce que mën nga ma ko joxal micro bi Abou Bekr maa ngi lay ziar. fii la paye. mbaa ngi si jàmm eh. sant bu wér <laughs> wax day ànd ak ndox may leen ma ko ndox Modou Faye jàppale ma fii ngir yàlla Abou Bekr maa ngi lay ziar. waaw Pape Sidi ñu ngi lay jaar. naka yitte yow fan nga dëkk yaa ngi dëkk Pikine yow tamit. Pikine wooyi. Pikine Caaroy. bu bees. Pikine Tali en quelque sorte hmm, kon daal tey je suis gâté par waa Pikine. waaw yaa gis. waaw Aboubacar moo tax nit ñi di la dégg rek parce que sa tur bi dafa neex rek quoi Aboubacar au lieu de Aboubacar. Hmm. Aboubacar c'est joli à dire. mais pourquoi nit ñi di la dégg si tey ñu ne ma kenn xamul moom rappeur la wala régisseur la wala DJ la lan nga c'est quoi. non dafa dafa fekk ni ñu yaroo ci ci culture urbaine bi rek. Hmm. léeg-léeg bu ñu joué wul on est ñu épauler Omar. Mhm. léeg-léeg tamit bu ñu comme on est des personnes yoo xam ne mu munir nañ suñuy capacité. Mhm. am nañ xel war nañ mën a def lenn loo xam ne mën nañu jëriñ. en quelque mhm. sorte kon graphisme beeg yooyu. lépp ñu dugg ci parce que ay góor yàlla lañ quoi. bien sûr et aujourd'hui on parlait des sponsors dans le hip-hop loo ci xam loo ci de vue. bon bi maa ngi dégg débat bi bon. parce que damay gis ne ñoom ñaar pour euh, ñaari millier yi pour ñu pour ñu am benn longueur d'onde day day xaw a jafe. Mm-hmm. parce que le hip hop fi mu nekk daf moom moo fa yóbbu boppam. Mm-hmm. amul amul lien amul corde bu ñu ko sànni. ah mais au début. au début si y avait. boobu ñu demee ba mu egg fii ba ñu gis ne les maintenant ñi ci nekkoon nekk ay booy màgg nañ structuré wu. xam fi ñu jëm maintenant ñoom dañoo soxna li wax soubassement parce que liggéey boo gis amul soubassement fondement wala ndëgër laay bu ko téyel mhm. du dem te maa ngi dégg élage euh, élage moom lui il parle de stratégie parce que stratégie lay wax cible mhm. te hip hop bi bu nekkul cible xaw ma fan mooy nekk cible parce il a pas pour mu jaay il faut mu am stratégie bi mu koy eggaleel ci cible am waaw cible ça c'est pour vendre toute chose qui se a besoin de stratégie de de boobu mhm. laa koy wax parce que hip hop bi n'est pas du rap rek. Mhm. parce que culture la. DJ yi ngi ci DJ yi ngi ci graphisme mi ngi ci rap bi mi ngi ci. ça nous on comprend mais en tant que commerçant ils te parlent d'argent non comme il nous parle d'argent. il fait une compétition. Ouais, mais il a fait une compétition hip -hop, avec euh, hip-hop, graphe, breakdance bien sûr. ñoom Pape Sidi ñoom <laughs> Pape Sidi. nee na hip-hop graphe dance. Pape Sidi. hip-hop mooy non ma. ok Bek. Eh, eh, may leen ma nag yéen saa yu xale yi di wax ngeen dagg leen te bu ngeen di wax xale yi duñ leen dagg. ayca Bek ñoom xam nañ lépp. Uh-huh. ñoom xam nañ lépp. bien sûr. dafa am c'est que wax léeg dañ koy wax du du du du du du neex a dégg. Mhm. mais ñoom dañuy dem ci làmb ci làmb ji. dañuy dem ci lutte bi gaa yi di leen rejeté. ah dañuy dem ci làmb ji. gars yi làmb ji kenn. non si. barke yàlla làmb jee gën soxor ñëpp sonn sonn ñëpp léegi. parce que <laughs> parce que chaque jour nit ñi toog ne duñ seetaan làmb ji parce que le gars li ko sponsor yi proposé bugg ko. déedéet loolu nu mu demee noonu. non yàgg nañ toog ay garçon ñu bëri di ko wax. parce que tamit ay sénégalais lañ. bu ñu waxi Gaston nga bëgg jàpp yow def ko. non non non je te dis li ma lay wax nii dafa leer Pape Pape Sidi <laughs> xam nga Mbaye mi ngi lay wax sànq benn affaire man je si d'accord avec El loo gis da ngay am cible parce que sa produit ngay jaay. Mhm. dafa am noo koy doxalee. ba mu am évolution nga am ci ay retombées. Mhm. loolu c'est nécessaire. Mhm. mais tamit sànq dafa am benn moo bu mu wax. parce que da ci am mot bu mu wax ci moom da ci am da nga ci am perception. il faut nga xool mbir mi nga jàngat ko. nan la émotion. émotion. waaw ah, c'est pas du mot bu ñu tëb tëb rek. si le directeur de la société ou ses enfants sont fans de Matador et que Matador vient après la fin du budget le directeur peut demander à ce qu'on de l'argent c'est lui son entreprise son entreprise maintenant ñoom ay sénégalais lañ ñun ay sénégalais ñoom la majeure partie des sponsors ay fils de sénégalais ñoo ko géré. Mm-hmm. à part ça sponsors yi ëpp doole fii ñuy xalaat mooy comme tu l'as dit tout à l'heure dañ koy xolli li ñuy xolli ak affaire yooyu. mais yooyu tamit c'est il faut que tamit état bi impliqué wu ci. mu dara état bi sax day bëgg ko sponsorisé yow. <laughs> yow da ngay mbalak quoi mais loolu dafa am solo Pape Sidi. parce que dañuy bind sponsor di ko yóbbu ci sponsor ngay bind yow sponsor di ko yóbbu. non non non mais Pape Sidi. billaahi boo xoolee état bi am na fonds bu mu alloué culture urbaine bi. Mhm. comprendre nga kon état bi moom en quelque sorte mi ngi mi ngi xalaat tuuti. xool nan la mën a def parce que xam ne ne li ci nekk ci jeune dafa bëri. Mhm. léegi maintenant nag euh, c'est c'est des yoo xam ne ñoom il faut ñu ñu alléger seen seen calendrier seen mais tu t'es jamais posé la question fan la xaalis bi ñuy jox état bi ñoom fan lañ koy jëlee parce que ñoom je suppose que amuñu ay machines seen kër yi. donc en quelque sorte ils viennent ils vont chercher de l'argent ailleurs. si qu'ils vont faire venir dans le pays. qui va circuler, on va les payer encore en taxes, ils vont nous le redistribuer et c'est ça se passe comme ça. Et c'est les banques qui dominent aujourd'hui. Moo tax ma ne la les États du monde surtout en Afrique vont vers des sponsors. celui que fi ngay dem pour sponsor la xolli bi dañuy sponsoriser état bi. si si. l'état des fois malheureusement c'est bon bon c'est argumentaire. am na am na am na loo on sent le besoin d'avoir coûte que coûte des gens qui nous accompagnent mm-hmm. mais ça se fait pas facilement comme ça non, il si. a fallu que ñu déglu la vie de euh, la vie de El Hadj et la vie de Matador pour xam ne y a vraiment une fois c'est am na benn trou bu rëy bu nekk suñu diggante ñun ñi nga xam ne ñun ñooy rap wala musique di ko wut ku ñu ko sponsorisé te noonu la mbalaxmaan yi di wutee sponsor noonu la lamb ji di wut sponsor noonu la graffeur yi di wut sponsor ainsi de suite donc dañuy obligé ñun ñëpp ñu daw rabattre ji wàcc ci état comme l'a si bien dit tout à l'heure euh, les mairies euh, xanaa ni ñu mën a def rek mooy fexe xarañ lool être aimé par tout le monde bu booy génn par exemple je peux citer aujourd'hui ici l'exemple de Wally Seck très rares sont les sponsors qui vont vers Wally Seck et Et pourtant, Dieu sait qu'il remplit chaque jour ou chaque soirée sur Penchimi. Ces événements au Grand Théâtre manquent de sponsors. Mais pourquoi Est-ce qu'ils vont vers les sponsors Est-ce que les sponsors refusent de l'accompagner Mais je me pose la question, mais attends, moi je ne comprends pas du tout. Il y a un problème. Ngone Ndour, directrice de label Prince Art, me dit la même chose. Pape Sidi, nous avons un problème de sponsors au Sénégal. Les sponsors ne répondent pas. Non. pourquoi ils font pas. pourtant visibilité. problème problème pas tout le monde. pas tout le monde. parce que yow yaa ngi accompagné. waxuñu la waxuñu la yow yaa ngi accompagné. mais ça ça date pas de longtemps. mais gars yi il faut ñu reconnaître aussi. mais yow da ngay accompagner benn émission populaire. non je parle pas d'une émission. je mhm. parle globalement. Mhm. entreprise yi. waaw ñu ngi génn ñu ngi sponsorisé. Mhm. c'est-à-dire boo ñëwee ci milieu hip hop bi dañoo bari macha allah. macha mais événement majeur yi tamit je pense que ni buñ ñu ci leen buñ ci buñ leen ci doon gis sax. qui décide de ce qui c'est quand les événements majeurs. mais mais euh, yow cité nga fi léegi wax nga show off de yëpp. par exemple mais. mais vraiment si si sponsor yi ñëwul. après benn instant sa waay sa waay day mujjee bàyyi. parce que tamit mënoo ko mënoo supporter événement bu toll noonu. de sans sans ay. may leen ma rek may leen ma cinq minutes rek. bekk bekk balaa ngay balaa may leen ma yéen ñaar ñi. ayca bekk bon souvent c' est vrai. matador may ma rek bekk jeexal parce que gars yi dañu découragé souvent dem ci démarche ji. sponsor parce que da nga déposé déposé ba après nga ni bon naa xool man sama yeneen voies mooy yi ma mën a utiliser pour pour. seeg sama événement. show objet. Eh, léegi je pense que à partir de émission ah. bi. gars yi dinañ commencer. yéen est-ce que mën ngeen a bàyyi seen wax yi ngeen may béykat. li ñuy waxtaan nii may ñu ñu yëgale parce que il faut tamit gars yi ñu xool ñu essayé waat comme demoon nañu ba découragé. dama taxaw fële eh, léegi dinañ jéem a ñëwaat taxaw fële ak événement yi ak dossier yi ñëwaat. pour xool. ñun mhm. yaay nekk témoin ñun dinañ jëlaat dossier yi demaat. seeti leen sponsor yi ah man je connais je connais je le si ñoom dañuy yanu événement bi mhm. bu ñu demee ba mu ba mu diis gann ci ñoom ñu bëgg leen ko yenni ah. may ma ñu dem di wut sponsor ils n'ont même pas le temps d'aller vers les sponsors benn anecdote si su ma si ma waree bon am na ku ma woo téléphone mhm. xaw ma kan ma ko jox sama numéro am téléphone alors oui ma texto ko sama adresse email di ko envoyé ma mail mais dëggaatuma mais après jot nga mail. jotuma mail jotuma dara ba tey. ba ba fi may wax ak yow nii quelqu'un m'a appelé mais xam nga doo doo mën a voilà doo mën a toog nga ne bon chat déedéet parce que yow tu es dans mille choses. Mm, mm, mm. mail boobu mu lay envoyé ngay dem sa bureau ubbi toog nga nga mën a tëj xool nga gis ne ah y' a y' a ça et ça et mm-hmm. ñoom bu la ne dañuy loué salle. Mm-hmm. jël ay engagement du ñu def le nécessaire dem ba événement bi jàmp ñu bëgg a wut sponsor là tu le mal. demain dinaa la yóbbu sa bopp d'ailleurs. Mhm. ak non non non non. il faut que tu vas euh, il faut que tu ailles là-bas. le flow on va bientôt lancer euh, l'appel. rappel incha allah lu ci am dina euh, euh, euh, dinaa appel bi la ñu commencé. xam nga ci li may dox. <laughs> xam naa la xeex baa ngi door a tàmbali maa ngi. non même même même yow kese on a besoin. Matador nag yaa ngi bëgg yaa ngi bëgg a yàqal béykat nag. bi jeex na <laughs> alors nous allons jouer un son ça ce sera certainement une occasion pour nous l'opportunité de te découvrir maa ngi ñaan waa régie ak caméraman yi xam naa ni depuis ce matin vous êtes là vous êtes fatigué maa ngi leen di ñaan rek ngeen ma cinq minutes. ngir yàlla waa <laughs> xam naa ni jeex na eh, yow Macky gagné na kontaan kay xanaa war nga maa jàppale. <laughs> Aïcha Beck on t'écoute. on peut l'applaudir s'il vous plaît pour sa prestation. Oh yeah. Yeah. Huh. ok yo crac crac ma visé sal cliquer cliquer one shot you there tigi tigi feegi kuru xur dabi MC Baba Garage ma raxas fakas real ma nokkos foog ma ko set tal géttu féeg yi nëkkal leen ci géej gi toj sa rap tas sa gain kasara marak rap du sap tey ma claqué mic bi fësal ride bi ha du li ci game bi fokk yaag sa plif yow sa king ak sa team ha diis du rey aas doo puus doo paas never be a twice sab yow gàdde maas mokkala koo set si la ver du yóotu dictionnaire amul sentiment centimètre biem ji moo ma nampal naxaa bi moo ma jàngal underground moo ma feral du ma gàddu mic di seral rab ak lu ma jaral ma sóoroon teeral mafia bi boo ci bokkul bi boo ci bokkul bi dalay dal mafia bi boo ci Say hip hop. Hip hop. Say never die. Never die. Say hip hop. Hip hop. Say never die. Never die. ah real shit ma jox la one shot ma faj la ah. dama overdose ci rap ah. syncope ci rhymes ah. nas ci underground eh. big town get to my sound I'm a number one eh. under me more my choice eh. ma make noise by force Ziggy bring the records ma kill fega res yu yàqu suma rap yow mbele mbele bëri coow bëri lu ñuy sab ah mu fi jaxasoow bëri bërti bërti buuxante yàkkamti bëri fërti fërti daw tuuti crevé fekk amoo cric sa kaa dafa critique sarti mbo cric rappeur yi daw rab yi dugg ci géewu polémique feeg res taak sërëm bàyyi rab jaayi përëm donte dangaa naa la suuc sërëm sa maañ def fëpp nga kaat attité ci rëb ma dëggate la mëkkate la ba nga nooy nepp mafia bi boo ci bokkul dalay dal

tàggatolisation <laughs> on va tàggatoo maintenant parce que je sais que ça fait une heure plus de une ñu bëri jàng nañ tey te bokk ci hip hop bi wala ñu bokk ci sponsor yi xam nañ lan la rappeurs yi bëgg ko weccoo ak sponsor yi lan la ñuy wut ci te war ko fekk ci ci rap bi j'espère que a la parole à Matador mu tàggoo wax le message qu'il va lancer waaw El Hadj di leen lancer message yi. waaw waaw euh, message bi may lancer sponsor yi mooy nii euh, tout ce qu'on fait c'est biir Sénégal la yem c'est pour des jeunes c'est pour accompagner ay jeunes yoo xam ni gëmuñu bëre wala football wala leneen musique la ñu gëm di ci yëngatu ñu war leen ci accompagner ba nga xam ni day mën a mën a nekk seen gagne-pain ñu ciy dind ñu ciy dund correctement. vraiment. Euh, appel bi ñu leen lancé mooy ni euh, bu dee structuré wu gars yi def nañ ko. bu dee le public. mi ngi fi bu dee talent bi eh, scène bi. on on bu dee show bi mi ngi fi. ñoom ñu accompagner que ñu mën a teg business bi ba nga xam ni day nekk euh, vraiment day benn levier. mu nekk benn partenariat win aussi mu nekk benn bokk ci levier de développement yi nga mm. xam ni moo war a suq yóbbu Sénégal ci beneen niveau. et ñu arrêté di xalaat ni. c'est de la musique c'est juste pour tëgg way fecc rek mm. mais y a autre chose derrière y a plein de jeunes si mm. benn autour d'un rappeur am na lu ma néew néew cinq personnes yoo xam ne dañ ciy liggéey mu nekk manager graphiste bi kiy def vidéo yi et tout ay entreprise yu ndaw la mm. yoo xam ni dañ leen a war a jàppale parce que dañ quand on parle d'émergence et ça là je m'adresse à l'État mmh. euh, bu ñuy wax émergence fat bàyyi pàcc boobu du mës a émerger parce que pàcc boobu ci la ndaw ñi nekk ci la émergence fa lañ ko war a gën a yaakaare parce que nag doole mi ngi ci ndaw ñi. mais pour les cinq ans à venir Macky fera euh, énormément de choses. <laughs> il avait promis quelque chose en si campagne. six cent milliard. un milliard pour le fonds de développement des cultures urbaines. ah ouais ah télé la wane nañ ko wax na ko. ah bii wane nañ fi bi muy wax cinq ans de. ah wane woon nañ bi muy wax cinq ans. ah en tout cas daal ñun bi ñu retenir boom ci ci campagne bi mooy un bi ma retenir <laughs> mooy wax na un milliard la yóbbu fonds de développement des cultures urbaines. Matador merci d'avoir répondu à l'invitation. vraiment di di remercier El parce que euh, tey joxaat na ma envie ma dem ver ñoom. Mhm. parce que vraiment on avait arrêté ko et di ko remercier di ko wax ne ko on va venir avec des projets solides mm-hmm. et je pense que ni sama naatangoo yi nekk ci hip hop yëpp tamit ils vont faire la mm-hmm. parce que il est temps que eh, ñu collaborer <laughs> qu'on travaille non mais eh, ils vont pas tous pas toi seulement El seulement mais à travers lui je parle de Matador merci beaucoup El Hadj sénégalais sonal yi soo ba ñu ngi fii mais yéen aussi gàcce ngalaama parce que li ma leen woowee ku ci euh, répondre à l'invitation et répondre à nos innombrables lanternes pour nous y éclairer intérêt merci d'avoir euh, répondu à l'invitation primo segundo lan mooy ce message à l'endroit du hip-hop et surtout des gens qui viennent vers vous en tant qu'annonceur pour faire des pour euh, message bi xam dina xaw a déplacé wu mais ñun jàppale wuñ kenn on n'est pas là pour faire du social. business ngeen def dañuy business. bien sûr nous sommes dans un monde de compétition les meilleurs on les accompagne les meilleurs d'entre eux vont drainer du monde. Mhm. loolu du ñun c'est avant que ñun ñuy ñuy intervenir. bien sûr boo demee ñoom yaa ngi def ay compétition di jël booy talent yi ñoom ku ci nekk am nga sa public. Mhm. nekk sa ginnaaw donc les meilleurs d'entre eux vont drainer du monde. Mhm. bu fekkee nag yow yaa ngi nekk hip hop du drainer du monde ba pare sponsor yi accompagner wuñ la y a problème. y war nga xoolaat sa toogaay war nga xoolaat sa encadrement war nga xoolaat sa organisation war nga xolaat aussi sa ni ngay communiqué mais normalement parce que ñun loolu la ñuy wër. loolu la ñuy wër man chaque année ma def tour du Sénégal. Je, je cherche le, le, le, le la visibilité la visibilité. mais si je vois que Maradona train du monde lu may daw di damay ñëw tu lui confies mon mon projet. bien sûr et puis après voilà mu jeex. donc ya vraiment foofu lay insister quoi. du yëf yi ndimbal. du ndimbal yëf yi business la. dama lay jox nga jox ma. kon na gars yi na leer ci ñëpp. c'est ça boo mënut nag wax dëgg yàlla bay organiser concert Aliou yi muy organiser jël estrade yi ñuy nga taxaw si tànk bi sax mu fa mu bëgg sponsor 3 millions wala 4 millions ça c'est pas possible <laughs> mais franchement merci beaucoup à Matador merci beaucoup a El Hadj Mamadou Ndiaye responsable marketing communication d'une grande marque Rani je veux pas le citer bala El Hadj di ma daax ka eh, fay fay yow laay nuyu nga nuyul ma mboolem technicien wu 2 beaucoup à DJ Woz. On peut s'applaudir très très fort l'ensemble des techniciens de la 2STV. Ce fut un agréable plaisir. Merci beaucoup à la régie, l'ensemble des téléspectateurs. C'était un agréable plaisir. C'était ma génération. Beneen samedi jaa ngeen jëf sama gaay ma génération ma génération ma ma ma ma ma génération ma génération ma génération ma ma ma ma ma génération